أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala tolli ci suratu ala imran di jël tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñetti aaya aaya 42 43 44 ñetti aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróomi mbir juróomi mbir yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ñu koy leeralal ci ngëneelu soxna soosu tudd Mariama mu ne wa annaha moom waliyatun sadiqatun waliyatun siddiqatun ne moom maryaama waliyu la baatab waliyu paase woon nañ ko ci bés yee paase lan lay tekki mooy xaritu yàlla la ku baax la moom maryaama waaye ku dëggu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax sax ne jigéen ñi kenn matu ci lu dul ñeenti jigéen comme ni mu ko waxee ci saxiix mu ne kamula min arrijaali kathirun wala walam yakun min annisaai illa aasiya ibnu firamna wa maryam bintu imran yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na góor ñi mat bari na torop waaye mu ne jigéen ñi ñi ci mat bëri wunu mu ne ba ñuy xool ñu ci mat danañ fekk soxnaas firawna bi tuddoon aasiya ci jigéen ñi mat sëkk la bokk waaye maryam doomu imran yaayu isa ci jigéen ñi mat ñi la bokk ñëw na ci beneen riwaaya yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne xayru nisaai alaalamin maryam bintu imran yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ñi nga xam ne dañoo mat te ñu tànn leen ñu mat ci jigéen ñi mu ne ñeent lañ bu ma waxee ñaari ku ku eggal yeneen ñaari di nga di nga di nga am kado xaaral ma génne kado bi ba pare mu ne Maryam la mooy kenn ki bintu Imran mu ne ñaareel Asiya imraatu Firawn ñeenteel ah ñeenteel Fatima ak Khadija waaw joxal ko mu ne wa Khadija bintu Xuwaylid ñeenteel ñetteel xadija moo leen ñetteel ñeenteel mu ne fatima bintu rasul ñii ñooy xayru nisaa'il alamin ñeent ñi ñooy jigéen ñi gën ci jigéeni àddina bi ñeenti jigéen ñi kon sunu darsu tey danañ gis ngëneelu Mariama ak Asiya Khadija ak Fatima mu ne ñaareel ahlul qurba min allahi hum ahlu taatihi alqaanituuna lahu ay yi ñuy jël tey dinañ ci fekk ne ñooñu ñi nga xam ne ñoo jege yàlla tabaraka wa taala mooy ñan mooy ñi ko doon topp ak ñi taxaw temm ci jaamu ko ñi ñoo ñu jege yàlla nga gis foofu li fa làqatu bu dee ñun la ku jege yàlla mooy ku kilifa diine nekk sa papa wala kilifa diine gi jege na yàlla ay doomam kon dañuy jege yàlla ay soxnaam kon dañuy jege yàlla ay mbokkam kon dañuy jege yàlla wala maadaama moom dañu ne kilifa diine la ci lislaam nag du loolu ci lislaam moom mooy ñi jege yàlla mooy ñan hum ahlu taatihi mooy ñi topp ñi ko topp alqaanituuna lahu ñi taxaw temm te di ko jaamu ñoo ñoo ñi jege yàlla yàlla utalu leen sant utalu leen tur utalu leen dëkk utalu leen barab bu dee ñun fii ñun ñoo leen di utal dëkk wala utal leen ay cant wala utal leen ay barab wala utal leen ay tur wala utal leen ay melokaan amma ci yàlla nag moom mooy nattukaay bi mooy topp ko rek taxawal ci jaamu ko nga bokk ci ñi ko jege ñetteel mooy alsalaatu sullamu alxuruji ila almalakuti al aala mbokk julit yi jaamu yàlla googu tudd julli mooy échelle bi yàlla teg sunu digganteeg moom ku bëgg a dem ci yàlla rek jullil seel bi yàlla teg ñu ciy teg sunu tànk di yéeg ay escalier di yéeg di yéeg jëm ci kaw fuñ jëm ci yàlla eseel boobu yàlla teg pour ñu egg asamaan egg ci moom mooy julli kon ku julliwul rek yow doo yegg ci yàlla ku julliwul sa sa digganteeg sa boroom relation bi coupé na moo tax ngeen dégg yonent bi ne soo bëggee jege yàlla rek sujjóol wasjud sujjóol wasjud waqtarib loolu sax la ñu yàlla wax sujjóol jege yàlla moo tax ñu ne la boo sujjóotee jege nga yàlla ñaanal soo rukoowee màggalal yàlla amma boo sujjóotee ñaanal yàlla mu ne fa aksiru fiihi du'a su ngeen sujjóotee na ngeen bëri lu ngeen ñaan yàlla parce que jege ngeen ko kon danañ jële ci sunu aaya yi ñuy jël tey mooy asalaatu sullamul uruji ilal malakutil aala boo boo bëggee egg ci pay yu sell ya boo bëggee egg ci yàlla tabaraka wa taala boo bëggee sa ruux set laab li lay dimbali pour loolu mën a nekk mooy nga julli nga julli nga nekk jullikat nga nekk jaamukatu yàlla soo bëggee egg ci yàlla rek bëril ay ràkka yooy def sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñeenteel mu ne subutul waxyil muhammadin wa taqriruhu sax na ne alquran bi dafa ñëw di dëgëral ak di feddali ak di leeral ne muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla moo koy dee yàlla mooy wax ak moom yàlla ko tànn yónni ko ne muhammad alquran ji muy wax sallallahu alayhi wa sallam wax yu la waaye alxuraan dafa ñëw sax di saxal ne man yàlla maa yónni muhammad man yàlla maay wax ak moom loolu danañ ko jëlee ci sunu aaya yi nga xam ne moom la ñu fas yéenee jël tey juróomeel mooy masru'iyatul iqtiraa'i inda ixtilaafi wa hadihi wa in kaanat fi lsharci min qablana illa annaha muqarrara fi sharcina walhamdulillah mooy yoonal nañ saa yoo déggee boroom xam-xam yi naan la mashruiya mooy yoonal nañ mooy dagan na mën nga kaa def doo ci am benn bakkaar lan lañ yoonal lan moo dagan ci sunu diine te mu amoon ci diine yu njëkk ya islaam ñëw bàyyil ñu ko fi mu dagan ba tey mooy loolu ñuy wax al iqtiraau loolu mooy lan lan mooy al iqtiraa mooy teg wala ni Zakariya defoon barki démb wala démb bi ñu koy nettali pour yar Mariam loolu mooy iqtira mooy ñun ñëpp dañoo ànd bëgg bëgg dara dara boobu ñu bëgg ñun ñëpp kenn nanguwul bàyyi ko dara boobu nag te kenn dong dong dong dong moom moo ko mën a jël léegi kon dañuy teg bant loterie baat boobu laa soxla woon mooy loterie suñu loterie ci ñun ñi ana kan moo koy jël kon ki gañe moo koy jël kon lislaam daganal na loterie waaye lan mooy loterie ba tey ndax boo nee gaa yi fii loterie dagan na am ku génn léegi dem fee fekk waa ji teg taabalam di rulle taabal boo xam ne dafa am un ba dix ñu ne flèche bi fu mu jublu rek da ngay teg cinq cent cinq cent cinq cent wala mille mille wala cinq mille ñu ne flèche bi fu mu jublu rek kookoo gagné ñu daal di buub dugal ci saako waxuma loterie boobu de loolu carte la loolu du loterie kooku dafa xaraam loterie mooy bu fekkoon ne benn mbir la ñun ñëpp ñu soxla ko ñu ne ku nekk joxeel dara ki joxe kurusam ki joxe montram kii joxe kii joxe ñu daal di teg ñu woo benn xale ne ko jëlal ci benn ki mu jël basam rek kooku la ñuy jox mbir mi ñun ñëpp ñu noppalu loterie boobu laa bëgg a wax waaye waxuma bee ngeen di def te mu nekk carte boobu du loterie dafa xaraam loolu carte la xam ngeen ne borom xam-xam yi ci jamono Zakaria ba ñu werantee kan mooy yar Mariam lu ñu mujj a def mooy dañoo dem ci benn dex bu tudd urdun nahru urdun suñ nee urdun dëkk boobu ba tey mu ngi existe mu ngi mu ngi mu ngi nekk mooy Jordanie suñ nee Suuriya ba léegi mu ngi existe mooy Syrie maanaam dëkk yooyu ba léegi ñu ngi am dëkk yooyu yonent yi nekkoon ba léegi mi ngi am suñ ne dëkk bi yonent yàlla Ibrahima juddoo yenn saa yi nga dégg ñu ne Babylone bu dee ñu jàng nasaraan waaye ñu jàng arab lan lañ lay wax Babil maanaam dëkk yi ba léegi ñu ngi am léegi nag ba ñu werantee kan mooy yar Mariam yàlla lim leen wax mooy nañ jël ay bant ñu sànni ko ci dex boobu képp koo xam ne ci ñoom bantam wëlbateeku na kooku bantam wëlbateeku moom mooy fas yéene yar Mariama ñu daal def noonu yàlla dogal mu nekk ci Zakaria loolu moo tax mu ne loolu daganoon na ci yeneen diine yi waaye loolu tey ci sunu diine loolu dagan na wa annaha muqarraratun dañ koo saxal fi shar'ina ci sunu diine ji ci sunu sharia ñun walillahi alhamdu kon mbokk yi ñetti aaya yooyu la ñuy jël ngoonu tey ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génn li ñuy wax yàlla nee na yonent bi neen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم اذ يلقون احلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون sunu borom ne wa is fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaalat moom waxee almalaikatu malaayka yi li waraloon lool nag mooy benn délégation boo xam ne ay nasaraan lañ ay chrétien lañ ñu ngi bokk ci giiru najraan ay chrétien lañ yu bokk ci najran ñoom chrétien yooyu ñoo doon dagga sante di wax ne Isa yàlla la waaw fi uluhiyatil masih Isa yàlla la waaw ndax doomu yàlla la kon ku yàlla jur yàlla nga wax ji garaaw na de yàlla nag di leen xamal subhanahu wa taala ne Maryam mi nga xam ne mooy yaayu Isa yàllaa ko teral yàllaa ko barkeel yàllaa ko laabal tànn ko li takuuna saalihi ibaadihi ngir mu nekk ci soxna yi gën a baax ci jigéen ñi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi moo tax sax gis nga mbaax gi mu baax moom maryaama borom téere bi nee na uxtulifa fi nubuwati nisa nee na nit ñi borom xam-xam yi werante nañ ne ndax jigéen dina nekk yonent mu ne wa rajaha kasiruna nubuwata maryam mu ne lenn ci borom xam-xam daa di lëngal daa di yayal ne i Mariama de yonent la woon moom ñu ne lu tax ñu ne li xitaabil malaika laha ndax malaaka yi sax dañoo wax ak moom wa ixbaarihim bi istifaa illahi taala laha ak tànn gi ñu ne yàllaa ko tànn mu ne nag waaye bu leen jaawale yonent ak ku ñu yónni wala daal ñu ne baat boobu li muy tekki mooy jaamu yàlla bu sell la woon bu baax bu yàlla tànn waaye nag yàlla yónniwu ko moom Mariama amma ar risala bu dee ak yonent gu yàlla yónni fala mu ne déedéet loolu mënul nekk li ann ar risala tatatallabu al ittisalaat bir rijaali ndax nekkug yonent dafa laaj ngay jokkoo góor ñi te góor ak jigéen mënuñu jokkoo chaque jour wa haza yatanaafi ma kamali nisa nee na loolu dafay wane ne jigéen ci wàllu woowu dafa am limite dafa manqué ndax message yonent góor rek moo ko mën a nekk beneen bi mooy su fekkee jigéen ñi yàlla daf leen a sant muuraay kiiraay ñu war a muur seen yaram ñenn ñi sax dem ba muur seen kanam kon yonent bu jigéen bu yàlla yónni mu war a muur yaramam muur kanamam nan la message bi di jàlle kon daal Mariama ku baax la woon loolu daal moo gën a wóor yàlla nee na fàttaliku leen délégation najran boobu bi ñëwee di daggasante bëgg yëkkati Isa martabaam ba mu romb jaam yonent def ko yàlla li ëpp ci nit ñi dañuy fekk ku baax ñu bugg koo yéegal ba mu paase palaasu mbaax te ku baax tukulóor yi nee nañ baytul ku juuti foofu wirtataa ko yaa muhammadu wala booyi juuti foofu ruttatoo ko yaa muhammadu na bu ñu takkee sunuy rajo di sikkar di sikkar sikkar gi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg fan lay teere ji ci allahuma salli ala muhammad mooy lan booy wax nit dafa baax ngay wax dafa baax lu mu loo wiiri wiiri yëpp ci mbaax rek ngay wax yem waaye nag boo bëggee wax dafa baax ba ci nga ne ah moom sax du nit ah yaa ngi génn nag gaam bu dul nit lan la beneen bi mooy boo taggee nit ne ko doo nit xas nga ko saaga nga ko wàññi nga ko gonal nga ko lu tax li yàlla bind nit a ci gën wala qad karramna bani aadam li yàlla bind nit a ci gën boo may kon yow doo nit mais xas nga ma jële nga ma ci ñi baax yóbbu ma ci ñu bon ñi parce que nit a gën lépp kon loolu tagg bu baaxul la beneen doo nit yow nangam nga yow nangam nga mbir mi di dem di dem di dem am na sax benn théâtre bu ñu leen ko théâtral am na benn théâtre bu ñu leen ko théâtral ci télé bi mooy sëriñu pour la fuuta ba gars yi ne ko yow waliyu nga mu ne passé naa foofu gars yi ne ko muqaddam nga mu ne passé naa foofu gars yi ne ko yow seex nga mu ne passé naa foofu luñ ko wax mu ne passé naa yow yonent nga mu ne passé naa foofu ñu ne ko yow yàlla nga mu ne ma du loolu la waaw mu ne ñu ngi koy wax de waaw très bien mu ne ñu ngi koy wax de ñu ngi koy wax de ah léegi lan la bëgg a wax dafa bëgg ne moom yàlla la am na ñu koy wax kay kon ça veut dire que mooy yow yàlla nga rek lan moo tax ñu ñeme ko théâtre c'est parce que dëkk bi moom la ñuy dund ah am na fi benn waay bu ñu rey sëriñ bi lan moo tax mu xulóog waa jooju balaa ñu koy rey dafa ne waa ji day ñëw naan ma yàlla laa te man du ma yàlla diw mooy yàlla wala wala loolu amul dégg ngeen loolu déggu leen ko ah gis ngeen ko seen bët wala gisu leen ko mu ngoog waa ji daan ma man maa yàlla man nee naa ko bu ma ne yàlla laa mu ne daf may wax yàlla nee naa ko man du ma yàlla diw mooy yàlla wala wala déggu leen loolu ah waaw kon nag mbokk jullit yi nit ci mbaax rek la mun a yem mooy da ngaa baax ku baax nga jeex na nañ yem foofu waaye boo bëggee jël ku baax paaseel ko place su mbaax rek yàq nga nit ku baax kooku loolu tax yonent bi saa salaam doon wax sahaaba yi bu leen ma jay bu leen ma jay laa tatruni kama atarati nasara isa bnu mariam bu leen ma jay comme chrétiens yi ni ñu jayee jési chrétiens yi dañoo jay isa ne ko yàlla nga yonent bi ne man bu leen ma jay de bu ma kenn wax loolu wa innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasul na ngeen ma ne man jaamu yàlla laa man jaamu yàlla laa yonent yàlla laa gis nga yonent bi dafa teel a tëj buntu boobu fre nekk mbokk julit yi kon wafdu nasaraan boobu bokk ci giir googu tudd najaraan qaalat il malaika fa inna zalika dalilun ala sihati nubuwatika wa siddiqik fi amri tawxid ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii nga leen tontu day wane ne yow ku dëggu nga ci yonent gi la yàlla yónni day wane ne yonent gi wér na waaye dëggu nga ci la la yàlla yónni ci mbiru tawxiid na nga ko leeralal ne yàlla kenn la yàlla amul doom amul soxna moo tax mu ne is qaalat il malaayika fàttali ko leen ba malaaka yi waxee yaa maryamu ee yow maryaama ee yow jaamu yàlla bu jigéen bi inna allaha naka yàlla istafaaki moo la tànn ndeysaan ixtaaraki yàlla la tànn lu tax mu tànn la li ibadatihi pour nga jaamu ko wa husnu taatihi nga topp ko ci topp bu rafet nekke gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala day tànn yàlla bi muy tànn Mariama gis na fi jigéen ñi waaye yàlla lu tax muy tànn ndax dafa am ñu muy préparé ñooñu muy préparé nekkul ne n'importe qui moo leen di jur mbokk yi ñun yére sax dañ koy tànn wala yére buñ koy jënd dañuy tànn wala duñ tànn dañuy tànn booy sol daal na booy jënd daal nag dangay tànn booy jënd oto nag ah dangay tànn boo jënd portable nag dañuy tànn léegi nag yàlla tamit bëgg wàcce ci kaw suuf ay góor yoo xam ne ku leen xool dinañ xam ne ñii ñu baax lañ ñi ay nit yàlla lañ kon yàlla fokk mu tànn góor ñooñu ana yenn jigéen moo leen di jur du ñëw fekk mboy mboy gii rek mu daal ci jël kenn rek daal di koy jurloo ab yonent wala mu jurloo ko wali yi wala mu jurloo ko ku baax benn shérif abadan loolu moo tax xool leen jigéen ñi ñi nga xam ne dañoo jur ñu baax ñi xool leen ñoom ñëpp seen histoire kenn ci ñoom fekkuñu ko ci mbedd mi kenn ci ñoom fekkuñu ko ci dancine yi kenn ci ñoom fekkuñu ko ci soirée yi wala ban yaayu nit ku baax ngeen fekk ci soirée la papaam fekk ci soirée daal di koy takk ñëw tuubloo ko mu daal di jur ku baax kan la wax leen ma turam amul fen moo tax soo bëggee am doom ju baax da ngay dem nga tànnal ko yaay ju baax munoo dem Malibu xam ngeen Malibu xam nga Malibu yow ok yëngu leen xam nga ko ok munoo dem foofu wala nga dem Ravin wala nga dem Sorano nga fekk fa benn xale bu jigéen nga ñëw nga nobanteeg moom foofu nga dem nga takk ko nga ñëw fii nga am wali yu mënul nekk xam nga looy am mbër ngay am wala simbakat wala gaynde wala rappeur wala musicien wala danseur parce que fan nga fekk ndaw si ci dansine bi kon kay lan nga war a am danseur parce que loolu nga mérito bu fekkoon ne da ngaa bëgg doom bu baax doo dem ci place boobu ndax foofu xam nga ne ñu jigéen ñu baax ñi duñ fa dem jigéen ñu baax ñu ngi seen keppaaru yaay toog ñu ngi ci daara yi jàng ñu ngi ci diiwaan yi di zikr allahu akbar xoolal yàlla lu mu wax mariama malaaka yi ñoo wàcc di informé ne yow yonent bi yàlla kat mi ngi lay yëgal ne mariama soxna su baax soosu nga xam ne zakariya moo ko yoroon defal ko mihrab ci wetu jàkka ji defal ko fa néeg mu lëlu foofu di jaamu yàlla ba sell ba set yàlla ko tànn boole ko ci nisaa il alamin kon dafa bëri yu ñuy jooy tey di ko jàmbat ñun ñii ñoo ko def ñoo ko def kat waaw ñun ñoo tànn ay baay yu bon wala ay jigéen yu bon ba pare nga defe ne boo amee doom ju jigéen ju baax nga dem may ko jëkkëru mbër kooku ban doom lay am ah ah boo jëlee sa doom nga may ko musicien sa doom bu jigéen nga jàngal ko alxuraan ba mu wàcc nga may ko musicien lan lay jur boo amee sa doom nga may ko fecckat dan lay jur waaw ñi jàng arab dañu ne iza kaana rabbul bayti bi duffi daari bu fekkee borom kër gi dafa yor ay sabar di tulli sikk nekku ci ne jabar juy tàccu la am doom juy fecc te loolu donc da nga gis fii Sénégal ñu koy tiitaroo man sama papa grand chanteur la woon woykat bu mag la woon ak sama yaay man ci laa juddu moo tax ma nekk ndaanaan na nii nag grand boobu bi waaw man ci famille boobu laa juddu man waaw sama ndey woykat la sama yaay woykat la mu ngi nii man man ci laa juddu man mooy daw sama der nga gis kële ne man xaalisu mbër lañ ma ngéntee allahu akbar wala du loolu ngeen am Sénégal ah man de man de wax dëgg yàlla yi may wax yëpp ci rajo bi laa koy déggee xaw ma nag ndax yéen dégg ngeen ko dégg ngeen ko waaw kon alhamdulilah kon yàlla baax na ba ma fenulee alhamdulilah léegi nag lu mel noonu ku mel noonu est-ce que dina nekk ku yàlla tànn mukk ci àdduna mukk inna allaha yàlla istafaaki moo la tànn allahu akbar yàlla moo yor tameem rek yàlla tame la yor di lay dañuy def ba mu fees mu lay ko ba lu baax li génn rek mbalit mi mu sànni ko fële du jël même porte ki moom yàlla yàlla du fekk jigéen joo xam ne ay weenam weñ yi di naaw dañ ciy tag yàlla di jël ween boobu di ko saxal wali yu mu koy nàmp abadan yàlla du fekk jigéen joo xam ne yaramam góor gu nekk da ciy teg bët ay bëtam di ci bànneexu yàlla di jël jigéen jooju di ko ëmbuloo ab waliyu wala ab nitu yàlla mukk mënul nekk jamais moo tax ñu baax ñi jigéen ñu baax ñi ñoo leen di jur jigéen ñi sàng seen awra di nëbb seen yaram di jàng alquran su guddee ñuy naafila bu bëccëgee ñuy zikr ñoo ñooy jur ñu baax ñi mariama mi ci la bokk inna laa yàlla astafaaki moo la tànn ixtaaraki yàlla la tànn lu tax mu tànn la ñu ne li ibadatihi pour nga mën koo jaamu wa husni taatihi pour nga topp ko topp bu rafet ndeke kon ku yàlla tànn dafa am sabab moom sunu borom subhanahu wa taala ana lan moo tax mu tànn la mu ne yemul ci loolu waaye wa taharaki mu laabal la allahu akbar yàlla daf ko tànn ba pare laabal ko ci lan la ko laabal min azunubi ci ay bakkaar wa saairi naqais ak mboolem manqué manqué yi almuxtalata bilwilayati lillahi taala li nga xam ne day tax day manqué dalay manqué loo yàlla bi mu tànnee Mariama daf ko laabal daf ko setal ba mu set loolu moo tax mu dëdd àdduna mu bàyyi fi nit ñi du jaxasoo ñoom ci biir jàkka ji rek lay nekk ci néegam lay nekk jaamu yàlla ak woor ak zikri tudd yàlla loolu kese la doon dëkkee ba ruuxam set wicc moo tax nit sa ruu munta set lu dul da ngaa da ngaa dëddu àdduna da ngaa sori nit ñi waaw nga xeex ak sa bakkan ba ruugi laab ba yu ndaw ndawaan yooyu yu manqué manqué yooyu yu sew sewaan yooyu nit ñi di xeeb nga bàyyi ko pour sa ruu set moo tax mbokk yi suñ demee ci alxuraan danañ fekk aaya bi gën a gudd yàlla di ci waat ci yàlla lan lay waaj lan lay waat moom yàlla mooy ñi texe mooy ñi laabal seen bakkan qad aflaha man zakkaha waat boobu moo gën a gudd ci alxuraan ni mu amee aaya bi gën a gudd ci alxuraan di wax ci wàllu jëflante noonu la amee waat bi gën a gudd ci alxuraan muy suratu sams lan la yàlla di waaj ne ku setal sa bakkan texe nga ku laabal sa bakkan ba bakkan bi laab yow texe nga waaye ku ko tilimal yow alku nga mariama nag bi ko yàlla tànnee pour mu jaamu ko pour mu topp ko sunu borom subhanahu wa taala def ko laabal ci ay bakkaar mina zunub kon bakkaar day tilimal nit bakkaar day salteel sa bakkan salteel sa ruu daa di dox sa digganteeg sa boroom mbokk yi ñun ñu toog fii kana kan ci ñun mooy sol mbubb mu tilim mbubb mu taq kan kan ci ñun fii mooy lekk ci bool bu tilim xam ngeen pour sàmbur ku xam fi pour sàmbur xam ngeen ko bu benn waay demoon léegi léegi jënd pot sàmbur bu bees tàq ci marché bi bu bees tàq mu ñëw daal la ci defal ndogu ginaar mu ëpp ko ba nga ñëw mu ne la bismillah ndax di nga ndogu ah lu tax dafa set pot bu set la defuñ ci dara kenn mu cee toog ah sa xel moo dul nangu xam nga lu tax sa xel nangu ko parce que pot boobu lu bon rek lay def bu waa ji jëloon bu waa ji jëloon bool bi muy demee wanag bool bi muy demee wanag bool bi mu raxas ko dafa la ci ginaar boo ñëwee da ngay lekk wala doo lekk da ngay lekk parce que yow looy wax bool bool la rek bool la rek waaw bool pour loolu la mais lee pour lële la moo tax gis nga yàlla du jël nit koo xam ne da ngaa salte mbubb mi bu rafetee fekk ruu bi setu doo dem c'est lépp day set moo tax ñu ne la même booy julli sa yaram bi na laab yére yi na laab fi ngay taxaw na laab balaa nga julli ñeenti moo la war yajibu an yakuna war na ci yow mu nekk sa yaram mu laab sa yére laab place bi ngay taxaw laab sa kanam gi nga jublu ko xibla ñeenti moo la war balaa ngay jublu balaa ngay julli léegi nag ñun su fekkente ne ñun laabunu laabunu sunu yaram yi laabul sunu ruu yi laabul parce que danañ dem ci yàlla duñ dem sunu ruu bu tilimee ci ay bakkaar sunu yaram takk sobe naka la ñuy demee ci yàlla te yàlla bi muy tànn Mariama Mariama di yegg ci moom dégg ngeen li yàlla wax istafaaki wa taharaki yàlla la tànn laabal la ci lan la la laabal ñu ne mina zunubi ci ay bakkaar wa sa'iri naqais ak mboolem manqué manqué yi manqué manqué jikko manqué manqué yaram manqué manqué ruu yooyu yëpp yàlla da cee satal Mariama ba mu set lépp luy tax nit ki du xaritoog yàlla doo nekk wali loolu la yàlla setal Mariama moo tax gis nga ñu war a jëm ci yàlla subhanahu wa taala loo leen def ci luy wane ne sax dañoo war a mer ba toog war a xuloo yow wala jàppante ak yow dañ la koy jéggal bu doon ci kër lañ nekk ndogu jot yekkaluñ leen bu ñu wàccee duñu xuloo wala wala bu fekkoon ne ci oto lañ toog lañ dugg am ku ñëw joggi leen wala saaga leen duñu xuloo bu ñu joxe woon seen xaalis ñu war leen delloo weccit mu manqué ñu xool mu manqué ñu ne la manqué la ngay wax dañuy dem bàyyi la ak lu manqué loolu parce que dañuy bañ seen digganteeg seen yàlla coupé dañuy bàyyi nit ñi yëfu àdduna su nit ñi di xëccoo àdduna ñu bàyyi leen ak moom bu nit ñi di xëccoo lekk ñu bàyyi leen ak moom bu nit ñi di xëccoo naan ñu bàyyi leen ak moom bu nit ñi di xëccoo nelaw ñu bàyyi leen ak moom bu nit ñi di xëccoo lu rafet jigéen bu rafet kër gu rafet nangam nangam nangam nangam nangam nangam ñu bàyyi leen ak loolu bàyyi leen ak moom ñoom du ñu xëccoo yooyu ñoom yàlla rek moo leen di intéressé moo tax yàlla da leen di tànn buñ demee ba yegg nag kenn la ñuy def kenn dootu leen mën a dëpp kon buñ bëggee egg ci yàlla buñ bëggee nekk ay waliyu waliyu moom Sénégal yomb na waliyu boo amee sikkim rek am mbax na sant nangam sol yére nangam yor dugg benn limousine yow waliyu nga yow waliyu nga waliyu waliyu Sénégal dafa yomb waaye waliyu yàlla moo jafe mu ne yàlla wa taharaki yàlla la laabal wastafaaki yàlla la tànn yow Mariama ala nisaa il aalamina ci mbooleem jigéen ñi ci àddina bi sa jigéeni jamono ñi nga bokkal jamono yow Mariama ñoom ñëpp yàlla la tànn ci ñoom yàlla def la ah faddalaki ala nisaa'il alamin yàlla la gënal ci mboolee mu jigéenu àdduna bi ma ahallaki lahu ci loolu yàlla wàcce la min kiramaat ci ay kiraama yum la may wilaadati isa min gayri abin yàlla may la nga am doom te doom ji amul bàyyi ndeysaan loolu mariama rek moo ko am am doom te amoo jëkkër keneen ku dul mariama nag bu la nee dama am doom waaye aw ma jëkkër bu yeboo nga xam ne boo wëree léegi léegi ñaari fan di nga gis baayam ci koñ bi waaw kooku kenn dong la woon foofu la yem moom dong moo musta séq góor waaw musta wéet ak góor séq ak moom ba pare am doom yàlla moo ko tànn setal ko laabal ko def ci moom kéemtaan googu ba pare def muy jigéen ji gën ci jigéen yi àdduna Isaa juddu te amul bàyyi loolu yàlla mbiru yàlla subhanahu wa taala la loolu kéemtaanu yàlla la sunu borom moo yor loolu ci loxoom la nekk moo tax mu def ko bu fekkee nit day waaru ci loolu nag ba bëgg a askanale Isa yàlla wala mu askanale Mariama yàlla askanale yàlla yàlla la ba ne yàlla ñett la juum na dafa am boroom xam-xam bu mag bu tudd al imam muhammad al baqillaani al imam baqillaani dafa amoon benn débat bu doxoon digganteem ak nasaraan yi mu fekk leen ci seen église ñu ne ko ñun dañoo am laaj te laaj bi ñu lay laaj dañuy tànn ñetti nit ci ñun ñu am xam-xam ñu laaj la laaj yooyu mooy leen ñëw leen ñu ne ko laaj bu njëkk bi ñu lay laaj mooy nee ngeen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa ñaanoon weer wi xar ñaar muhammad dafa ñaanoon weer wi xar ñaar mu ne leen waaw dëgg la kay ñu ne ko lu tax waa Màkka rek ñu gis loolu ñun ne ñeneen ñi gisuñu ko mu ne waa ji ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam waa ji ne ko tontu ma ci xam-xam mu ne ko nee ngeen Isa dafa ñaanoon benn bool jóge kaw asamaan mu ne ko waaw yàlla da cee wàcce saa sax ci alxuraan muy suratu maida mu ne ko loolu am na kay mu ne ko yow lu tax lekkoo ci waa jooju daal di nelawi keneen ki ne ko am naa laaj lu tax mu wax waa ji lu tax lekkoo ci mooy waa ji moo ne ko lu tax yoon moo yonente bi mu ñaanee weer wi xar ñaar waa màkk rek ko gis mu ne ko yow tamit isaa bi mu ñaanee bool bi wàcc lu tax yow lekkoo ci donc kooku amul doon kooku toogi keneen ñëw ne ko dama am laaj mu ne ko luy sa laaj luy sa laaj yow ban laaj nga am waa ji ne ko ku xam laaj boobu kooku de war naa ci mën a joxe am montre deuxième laaj waa ji deuxième laaj kon kii day dugaat ah benn non boobu boobu ba beneen question yi la yooyu yeneen yi la kon bàyyi ma dugalaat ah dafa am dafa am ay soxna boobu mooy troisième question bi deuxième bi laa wax troisième question bi nga indi mooy Aïcha loo xam ci yonent boo xam ne dañuy tuumaal jabaram njaaloo waa ji ne ko ah ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam kële lan la waxoon sànq bi ñu ko ne ñu tontu la ci xel wala xam-xam lu mu wax tontu ma ci xam-xam mu gis ñu daaneel moroomam mu ne ko tontu ma ci xel mu ne ko ñaari jigéen a ngi nii jigéen bi daa am jëkkër amul doom jigéen ji amul jëkkër am doom bu ñuy tuumaal njaaloo ñoom ñaar kan lañu war a tuumaal njaaloo ki amul jëkkër kan moo amul jëkkër am doom kan moo am jëkkër amul doom Aïcha mu ne ko ban la xel nangu waa ji daal di daal di toogi mu ne ko ñaar yëpp benn amu ci Aïcha miñ tuumaal njaaloo yàllaa ko wedd ci alquran inna allazina jaa'u bil ifki usbatun minkum ñi indi fen bi benn mbooloo lañ ci biir naafiq Medina Mariama yàlla moo ne inna masala isa inda allahi xalaqahu min turabin summa qaala lahu alxaqu min rabbika fala takunanna minal ñaaree benn amul kooku daal dem toogi mu des ñetteelu personne bi waa jooju ñëw di bàkku ne ko isa atharu min muhammad isa moo gën a laab muhammad isa moo gën a set mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko parce que sëy dafa salte te yonent bi def na ko Isa moom mësta sëy parce que amul jabar 33 ans la am rek génn àdduna kon ku sëy ku salte nga ku mësta sëy yaa set mu ne ko kon Isa moo gën a set boro yàlla papam kon doom ji moo gën a set baayam saa waay ne ko loo wax mu ne ko mani yow li nga wax mooy Isa moo gën a set yàlla ndax nee ngeen yàllaay baayam rek waa ji daal di yuuxu ne ko qulta xaqan wa nataqta sidqa ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasul église bi yëpp daal di tuub loolu moo leen di wan ne kon yàlla subhanahu wa taala amul doom kon sunu borom subhanahu wa taala dafa tànn Mariama préparé ko pour lan seetal ko ci ay bakkaar def ko jigéen ji gën ci jigéen yi àddina may ko ay kiraama ndax lan defal ko ay kiimtaan ndax yàlla dafa am lu mu bëgg a wane ci Mariama gis nga nit ñi ñoo yor benn jikko bu sew boo xam ne tey boo fi nekkoon benn saay-saay benn bandi ngay trafiquer drogue di tox yàmba di naan di agressé nga jékki-jékki rek tuub sa benn chemise bu weex taal sa mbaxane bu weex yor kurus commencé dem jàkk ku la romb nga ne asalaamaaleykum nga commencé yar sikkim lan la gars yi wax ah waay waay kii nañu dimbali waay waay waay waay moom moom au lieu ñu ne alhamdulilah rabbi waay jërëjëf waay ñoom ñoom ñu ànd sant yàlla nit ñi di loolu moo la waral mais déedéet dañ lay jéem a waaw dañ lay jéem a décourager pour nga dellu ci lële te bi nga nekkee ci lu bon loolu olal ku la gis daw kenn ñemu laa wax dara tey nag bi nga ñëwee di bëgg a baax yàlla nag bul jekki-jekki ñu julli ba pare nga naan da ngay waaraate asalaamaaleykum ñu dimbali o bu ñu fonton loolu la nit ñi wax moo tax gis nga yàlla yàlla subhanahu wa taala du fekk ku mel noonu sax mu koy def yonent parce que xam na ne kon nit ñi dañuy gàllankoor yoon bi bu yàlla bàyyi woon benn yonent boo xam ne ivrogne la da doon mandi di naan def yu bon mu ñëw bu suba ne yonent la nañu naan ko waaye waaye doo ñu dimbali moo tax yàlla day tànn jigéen ju baax mu préparé ko ba mu am doom ju baax doom jooju yàlla daal di koy def yonent kenn du xam ci moom muy def lu bon parce que nit ñi ñoo la munta buñal nga nekkoon ci lu bon démb nga ñëw tey ne da ngay baax te pourtant loolu moo naturel moo mooy mooy mooy mooy lu jaadu mooy lu war mais nit ñi duñ la ko nangu. loo moo tax Sénégal boo fi nekkee ci lu bon soo moytu bu la yàlla dimbaliwu rek ci lu bon li ngay dee parce que bis boo fi ñëwee bëgg a baax rek nit ñi nag moo moo looy waaraate kañ kaña nga commencé waaraate kaña kaña mooy loolu lañ lay wax. kaña nga fi juddu kaña nga fi màgg kaña nga fi jàng même soo baaxoon nga dem jàngi fu nekk islam nga ñëwaat nga bëgg a waar sa yaay wala sa pap xam nga sa pap lu mu lay wax moodu nga ne ah mu ne la moodu moodu kañ nga kañ nga fi juddu kañ nga fi jàng kañ nga fi màgg te pourtant boo demoon Europe indi xaalis kenn du la wax kaña de ah gars yi nga ñëw sam waay wàcc aéroport yor ay mallette nga ñëw gars yi mu leer leen ne sam waa ji indi na soo ñëwee soo ñëwee loo wax ñu ne est-ce que ay ah waaw mu ngoog seen yoon ni xoolal boo indee xaalis moom waaye boo ñëwee na indi ñu xool ñu ne loo indi waaw man nga wax dëgg yàlla wàcc na alxuraan juróom-ñaari yoon ñu ne après mokkal naa Bukhari ñu ne après mokkal naa muslim ñu ne après nga ne Abu Daawud ak Tirmisi moom miin naa ko mokkal ma ko mais miin naa ko ñu ne la waaw léegi nag yow kon li nga def ci àll bi yëpp yow yow ay yére kese nga indi ni woo dara yow benn police bi rek nga indi ah sëñ bi ñun jërëjëf waaw waaw baax baax na baax baax na egsi ak jàmm waaw xam nga ban néeg lañ lay dugal néeg bi xale góor yi fanaan tegal la benn mat la ci ruq bi nga fanaan ak xale yi waaye bu leen leeree ne aéroport nga jógee cim nga téléphoné yaa ngi ñëw ñu ñu dem jëli la ñi ñëw ñu gis malet yi waaw nga ñëw ne paa bi banque CBAO am naa fa benn compte temps ma nga fa nga ñëw gis kër gi ni mel nga ne non paa non non non non paa utal benn kër ci côté yi ñu daaneel kër gi nga woo benn architecte ñu defar daan est-ce que ay bis boobu fooy fanaan xale yi de duñ fanaan foofu xaw ma kan de waaye xale yi duñ fanaan bu dee néeg boobu kese la xale yi duñ fa fanaan te mat la bu bees takk takk dara bu bees tàq njaganaay bu bees tàq tapi bu bees tàq lañ lay lalal lépp day bees du ñu indi sax yu nekk ci kër gi parce que yow xaalis nga indi pourtant kii alxuraan la indi de alxuraan la indi kan mooy dem ci benn kër tey asalaamaaleykum paa bi ne ko waaleykum salaam mu ne ko damaa bëgg a ñëw pour nga may ma jabar mokkal naa alxuraan luñ lay wax ah kenn du la may eh lan nga mokkal nga ne alxuraan ñu ne ba mokkale alxuraan nag demal jàkka ja dama kër yilimaan dama kër yilimaan lañ la dama kër yilimaan waaw. boo nekkee benn tubaab bu màggeen nag boo xam ne dee moo la dese boo ñëwee ne jabar nga bëgg ñu ne nañ gaaw takk nañ gaaw takk ndax xale bi dem. ndeysaan gis nga de gis nga de sunu borom ndeysaan ñun de fii lañ toll ci àdduna fii lañ toll moo tax mënu noo dem. duñ dem dañuy sonn rek duñu dem parce que jaaruñu yoon bi yoonu yàlla dafa am yoon dafa am yoon yoon woo xam dafa am nun fay jaare ba yegg ci yàlla waaye boo jàkka boo jàppeere ne benn yoon bu gudd boo gis rek ci yàlla la ñëm da ngay nax sa bopp yàlla benn yoon la am yonent alayhi salaatu salaam dafa jël benn bant daal di rëdd benn yoon bu gudd mu ne nii mu ne gis ngeen yoon bi saaba yi ne waaw mu ne li mooy siraatal mustaqim mu daal di def ci yoon bi ay ñall ñall def nii yoon yi wër mu ne yoon yi ko wër yëpp mooy yoonu seytaane ku ci jaar rek ci seytaane ngay teeri ci mu ne waaye gis ngeen yoon wi di siraatal mustaqim yoon wu guddul la soo ko yéegee doo wàcc ba ci yàlla waaye nag seytaane moo ñëw ba ci diggu yoon boobu parce que yoon bi dafa gudd ba pare naaj bi tàng yoon bi sori seytaane ñëw bu ci diggu yoon bi daal di fay def ay mbaar daal di fay def ay climatiseur ak ay frigo dugal ci ay canette dugal ci jus dugal ci boisson dugal ci ndox mu sedd dugal ci caakiri dugal ci fruit dugal ci lu nekk boo doxee dox dox dox dox dox dox jëm ci yàlla topp ci yoon bi ñaq tooy xeeb poussière pënd sa dàll yi sax yenn saa yi mën naa dagg sa tànk yi xotteeku yëre yi xotteeku nga dox ba ñëw fekk mbaar moomu nag nga war a jubal mu ne la sama waay toogal toogal da nga sonn toogal nga toog mu indi la affaire yi affaire yi nga commencé ñaq bi commencé dañ climatiseur yi ëpp la nga féex mu jox la fruit jox la caakir yi jox la yu sedd ba nga nekkaat normal mu ne la waa foo jëm nga ne ko ci yàlla mu ne la mais fii moo gën a gaaw gisoo yoon bi yow kay lii moo tax nga sonn nga ne ko ah mu mu ne yow de fii boo fi jaaree balaa nga yéeg fii la mu ngi nii rek nga daal di faxar faxari ah daal di jàdd mu ree toogaat di xaar keneen ñëw am na ñuy rëcc de mais bëriwuñ de yoon boobu gaa yi jubal bëriwuñ ñi jàdd ñoo ëpp parce que da leen di nax wala yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko yàlla nee na Mariama maa ko tànn ala nisaa'il alamin ci mboolee mu mbindeef jigéen àdduna allahu akbar lii garaat la de xoolal jigéen ñi ni ñuy bari bari àddina bi ñaata jigéen ñoo fi nekk yàlla bàyyi jigéen ñépp tànn Mariama waaye du hasard du hasard yàlla tànn Mariama Mariama xoolal bi mu juddoo ba léegi lan ngeen ko gis mu def balaa muy juddu lan la yaayam def ñan ñoo ñëwoon démb bismillah avant muy judd yaayam dafa nësëroon ne bu amee doom doom ji yàlla lay liggéeyal ci jàkk ji lay nekk kon yaayam dafa préparé doom ji muy am wala doom ji ñëw ñu tabaxal ko néeg ci jàkk ji kon doom jooju bu ko yàlla tànnee seetal ko laabal ko gënal ko jigéen ñi nekk ci àddina bi yëpp est-ce que yàlla dafa juum yàlla juumul da fekk ku baax mu tànn ko pour génn ci moom ku baax lu ñu bëgg foog ñu préparé ko xataa sa doom ji nga bëgg mu bu bëggee boo bëggee sa doom nekk intellectuel nekk borom xam-xam moo xam nasaraan la moo xam arabe la moo xam anglais la moo xam français la moo xam dafa da nga bëgg mu wàcc alxuraan ah. waaw est-ce que da nga koy sànni ci mbedd yi nooy def koy préparé bi nga ko inscrire école mu jàng doyul de da ngaa dem ut benn professeur bu ko encadré. utal koy matériel utal koy téere utal ko lépp utal koy machine da ngay dem kër intellectuel yi nga fekk xale yu ndaw yi am sept ans di manipuler ordinateur wala xale tuuti di ci fo fekk am na paa yoo xam ne xamuñu muy xamuñu luy téye souris bi ah yëkkati loxo nga gis xale bu am huit sept ans huit ans di manipuler ordinateur nu ko neex mu def ko di ci def ay jeu di ko def nga toog di jommi mais dañ ko préparé il faut ñu préparer suñu bopp préparer suñu njaboot bu ñu bëggee am ay nitu yàlla ay jigéen ñu baax ay doom yu baax dañuy préparer suñuy doom comme ni ñu préparé Mariam bi ñu préparé Mariam yàlla bàyyi jigéen ñépp tànn Mariama wastafaaki ala nisaa'il alamin ñaata jigéen ñoo nekk ci àdduna ñaata lañ jigéen ñi góor ñi ëpp jigéen ñëpp jigéen góor ñi wala yàlla bàyyi jigéen ñoo ñëpp daal di tànn Mariam allahu akbar muy garab muy teraanga bu rëy rëy rëy rëy bu ko yàlla subhanahu wa taala defal mu ne yaa maryamu yow maryam ngallawaay uqnuti uqnuti atii toppal rabbaka sa boroom rabbaki uqnuti rabbaki toppal sa boroom jaamu ko waqnitii lahu toroxlul ko waxshai toroxlul jaamul yàlla subhanahu wa taala wala li ko yàlla wax e yow mariama mu ne a yow sama boroom mu ne ko atii rabbaki toppal sa boroom lu mu ci teg wax shai na nga toroxlu foo nekk ci sa borom na nga ko jaamu na nga ko topp gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala li mu sant Mariama mu ne ruwiya an awza jëlee nañ ci benn borom xam-xam bu tudd al awzai mu ne annahu lamma umira taala lamma amara taala maryam bil qunut qaamat fi salaati hatta waramat qadamaha sunu borom bi mu ne Mariama jaamuma Mariama dafa taxaw di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla di julli di rukkoo di sujjóot ba tànk yi néewi ba tànk yi néewi allahu akbar dafa taxaw di jaamu yàlla ba tànk yi neewi mënatul taxaw tànk yi funki wasaala daman wa qayhan tànk yi neewi mujj di nàcc di génne dëtt lépp mu ngi taxaw di jaamu yàlla allahu akbar kon yell na yàlla tànn ko parce que yàlla xam naa ne xam na ne kii bu ma ko tànnee lu ma ko sant mu def te nag jaadu na de jaadu na mu taxaw jaamu yàlla ba tànk yi néew yi di nàcc di génne deret di génne dëtt lu tax kan moo ko ne jaamu ma yàlla woo ko ne ko eh yow Mariam mu ne ko ah mu ne ko uqnuti li rabbik jaamul sa borom kooku dafa xam ki ko woo kan la wala ah commissaire bu woowee al al al alkaati alkaati bu koy wuyu si nu muy la ah day daw benn benn nu mu tudd benn gradé lan la colonel la wala général benn général bu woowee benn soldat buy wuyu si nu muy la. day dox day tempi tempi nu muy def day daw lu tax dafa xam ki ko woo kan la mariama bi ko yàlla ne jaamuma moom it boroom xam-xam yi nee nañ dafa taxaw di jaamu yàlla subhanahu wa taala guddeeg bëccëg la yemale zakariya di daan ñëw dugg ci néeg bi bëgg a wax ak moom ndaw si julli Zakariya day toog toog toog toog toog toog ba sonn génn dem bàyyi ko ndaw si day julli di jaamu yàlla moo tax kon bu yàlla ne tànn naa Mariama ne nit ñi xam ne du hasard moo tax yàlla tànn ko olof yi dañu ne boo bëggee dara da ngay def dara boo bëggee dara da ngay def dara moom bi mu bëggee dara dafa def dara uqnuti jaamul sa boroom topp ko wax sha'i na nga ko toroxlul ci jaamu gi nga koy jaamu yàlla ne ko was judi sujootal warka'i rukool ma raki'in ànd ak ñi rukoo warka'u ma raki'in na ngeen dem julli ja ca ñiy julli boroom xam-xam yi yàlla na leen yàlla fayal dañuy ballulu ci aaya yu mel nii di wax ne jullit bu dul dem jàkka amul julli jullit bu dul dem jàkka amul julli boo nekkee ab jullit te doo julli ji jàkka amoo julli lu tax ñu ne yàlla moo ne war kaw ma rakiin dem leen ngeen julli ja ngeen rukkoo ji ca ñey rukkoo fu ñu nekk am naa ñetti laaj am naa ñetti laaj bu ñu la na woon demal ci ñuy football fooy dem stade bu ñu la na woon demal ci ñuy fecc fooy dem bu ñu la na woon demal ca ñuy naan fooy dem kon bu ñu la ne demal ca ñuy julli foo jëm ñu ne la demal ci ñuy julli nga génn sa ëtt daal di lal sa sijaada warka'u ma raki'in dem leen julli ji ca gaa yi julli gaa yi julli fan lañ nekk jàkka ja yonent bi nee na la salaata li jaaril masjidi illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkka ji te doo dem jàkk yonent bi nee na amoo julli ñu ne yonent bi kan moo dëkk ci wetu jàkka ji mu ne allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna daar ki nga xam ne diggante këram ak jàkka ji 40 maison la kooku dafa war a dem jàkk Sénégal nag yàlla dimbali nañ ba nga xam ne doo fi gis fukki kër lu dul jàkkaan ko ah wala wala ah xanaa boo dëkkul ay booru fan résidence ak ay booru palais de la république te foofu sax jàkkaan fa wetu pale am na jàkka de gan ma fa gis jàkka wetu palais palais de la république man gis naa fa jàkk ci wetam ah biir principal am na juma loolu matul 40 maison matul 40 maison Sénégal foo dem Sénégal foo dem boo comptee benn ñaar ñett ñeent jàkk sa kër ak jàkka ji du mot mukk 40 maison loolu moo tax amoo droit julli ci kër gi jàkk rek nga war a dem amoo droit jàkk nga war a jullee loolu nga am ngànt gu fës gu rëy dafa am benn saxaabu bu tudd Abdallahi ibnu Ummi Maktum dafa silmaxa woon du gis gumbala woon du gis mu dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di soññaate ci jaamu yàlla ci dem jàkk oh tey sunu fi neexul y a trop de bruit bi mu déggee yonent bi di soññu gaa yi ci jaamu yàlla mu ne yonent man de mënumaa dem jàkk xam nga ne damaa gumba damaa silmaxa te awma ku ma yóbbu jàkk ndax bu ma déggee ñu noot dinaa mën a julli sama kër yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ate demal nga wuy ji kii nodd yow lay woo demal nga wuy ji kii nodd yow lay woo gumba googu xam nga ulama u siira lu ñu wax la def daa dem marché jënd buum ñëw takk benn cat bi ci buntu këram mu jàpp ci beneen cat bi xëcc ko ba ci buntu jàkka ji daal di yeew ko bu ñu noddee mu jàpp ci buum bi dem buy ñibbisi jàpp ci buum bi ñibbisi te gumba la gumba gumba xoolal ñun njàccaar yi ñu ngi nii ñun njàccaar yi kañ la ñuy dem jàkk weeru koor ba weeru koor xëdd xëdd xëdd moo ñu yóbbu jàkk xëdd wala jàkk ji am takk samedi ci ngoon jàkk ji am takk wala dimanche ñu xam ne dinañ fa am benn mbuusu beñee ak benn mbuusu zi jinjeer ak benn mbuusu bisaab bu xonq ñaari tàngal mant ak benn doomu guro ah am na seen benn waa koñ waaw daawul dem jàkk waaw allahu akbar dañoo defar jàkk ji defar ko ba mu rafet moom musul dugg ci jàkk ji takk am mu dem mu dem foofu rek mu gis jàkka ji ñu ñu karole ko ba mu rafet rek mu tiit muy laaj kañ la jàkka ji mel nii te mu dëkk ci koñ bi allahu akbar gis ngeen loolu même kii même ñun suñu koy am na mag la de.
ah musul dem jàkk.
musul dem jàkk mais seen kër ba ba ñoo may doom muy maye doomam mu ñëw jàkk xam sax nuñ jullee.
ndeysaan xamul jàkk xamul penku bi fan la allahu akbar la ilaha illallah dégg ngeen loolu loolu laaj nit ñi nit ñi.
muy laaj nit ñi penku penku penku jàkk ji fan la wala borom kër buy maye doomam musul dem jàkk du dem jàkk voilà suñu koy la.
ba ñëw war a maye sa doom dugg ci jàkk ji laaj ci penku jàkk ji fan la yàlla na yàlla dafa sutura man gis naa koo xam ne ñoo bokk koñ benn fajar dafa ñëw ci jàkka ji rek bilaal bi daal di tiit maanaam bilaal di ko gis mu julli ñaar rakka sëlmal rek bilaal bi jóg taxaw ñëw ba ci moom nuyu ko ne ko mbaa jàmm la ana samaam bilaal la mu ne ko mu nga fa mu ngi kër ga mu ne ah alhamdulilah rabbil alamin bilaal bi yaakaaroon ne morgue bi caabu morgue bi la jël si dafa am kuddee seen kër billaahi loolu la foogoon mu nuyu ko rek ne ko mbaa jàmm la ana seen waa kër ana sa maam mu ne ko mu nga fa mu ne alhamdulilah du dara mu ne du dara mu ne ah alhamdulilah xool dañoo yaakaaroon ne caabi morgue bi la jël la ilaha illa allah muhammad rasulullah imaginez leen imaginez leen ab julit bu dem ci jàkk naan jàkk ji nekk nii la mel ci biir wala mu naan fan mooy penku jàkka ji wala ñu gis ko ci jàkk tiit dafa ne dafa am ku dee ci koñ bi loolu gàcce la de mbokk yi yal na yàlla jubal mbokk yi yaa maryamu yow maryam uqnuti li rabbiki jaamul sa boroom kan mooy def nii rajo bi ah doo ko wàññi rajo bi la la yaakaar ne mo- moom la Hmm? yaa maryamu yow maryam uqnuti li rabbik jaamul sa boroom topp ko wasjudi sujjootal warka'i rukool waaye ma rakiin ànd ak ñi rukoo allahu akbar ishadi salaatal jamaa fi baytil maqdis yow maryaama jigéen nga de waaye na nga dem ci jàkka ji baytil maqdis ngay julli foofu ànd ak jullikat yi Sénégal nag jigéen du dem jàkk Sénégal jigéen du dem jàkk Sénégal kañ la jigéen di dem jàkk kañ ah ajjuma wala tabaski wala korite wala soo màggetee ah ah allahu akbar waaw loolu moo jaadu waaw jigéen day dem jàkk yonent bi alayhi salaatu salaam yàkkam jigéen ñi dañu war a julli góor ñëpp jigéen ñi wala waaye ñun bi ñun ñi ñëpp ñun ñi ñëpp la wax suñu jabar yi dañuy nelaw fajar kan ci ñun bi mooy dem fajar jàkk yóbbaale jabaram moo leen ba ci man ñun ñëpp parce que lu ñu tàmm mooy Sénégal mooy jigéen du dem jàkk loolu lañ tàmm ñun ñëpp booy dem xale yu góor yi ngay yóbbu xale jigéen yi nga bàyyi leen foofu ak sa jabar nga leen waaw julli leen leen ci saal bi xoola Mariama lu ko yàlla wax te yonent bi nee na laa tamnahu ima allah masajid allah bu leen tere jaami yàlla yi jigéen yi jàkka yàlla yi est-ce que xam ngeen li tax jigéen ñi tardé Sénégal mooy jigéen ñi duñu fekk waat xoolal tafsir bi
moo tax xam nga jigéen ko jigéen ñi du ñu fekkee jàngale diine du ñu fekkee waaraate yenn saa yi sax bu gaa yi def conférence jigéen ñi ci ginnaaw la ñuy doon ci ginnaaw fële dañ leen di defal gi yenn saa yi sax ñu defal leen benn rido bu leen kenn gis ñu muur leen su ko defee nag ñu nekk foofu conférence yi maa ngi wax ñu naan waa natt bi kañ lay commencé kañ ngay kañ may teggi waaye yow dàll yi waaye yow gis nga sa kaala gi ku la ko ñawal si yow sa tesi bi mais bu ñu toogoon suñu wet ñu leen di xool suñ bëggee waxtaan ñu ne hum, hum, hum. ñu noppi di déglu waxtaan bi waaye bu ñu leen bàyyee fële ñoom kese leneen lañ fay nekkee trésor bi nekkoon fii balaa ñu koy toxal di ko def hôpital xaw ma maternité dispensaire trésor bi xam ngeen fii la nekkoon fii lañ daan fay arrêt ñi retraité bu weer bi dee woon ñuy fay paa yi xam ngeen am na paa yoo xam ne seen borom kër seen euh, dañoo faatu seen jabar yi ñooy ñëw di jël passion bi léegi jigéen ñi dañuy teel a ñëw buñ ñëwee di julli ci suñu jàkka ji buñ ñëwee ci ginnaaw la ni nekk da ngay gis ci ginnaaw nit ñi def nañ seen ñaar rakk di xaar ilimaan ñëw ñu julli nga gis ñu commencé nga bàyyi na hum, hum. ñu continuer nga dee ko ne hum. ñu ko beneen mère yi roogi noonu waaw la ilaha illallah maa jigéen moo tàmm fu mu nekk waxtaan moo tax kenn waru leen a soril góor ñi pour ñu ñi leen di bàyyi bët pour ñu bañ a waxtaan ñuy déglu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam xew-xewam yépp day génne jigéen ñi même jigéen ñi bu ñu gisee baax sax julli korite da leen di génne julli tabaski da leen di suñ demee ba ci jullikaay bi ñu nekk ci ginnaaw góor yi ñi am règle nga xam ne duñu julli daal di taxawee ne waaye di déglu xutba bi parce que ci lañ bokk ci diine bi waaye ñun suñu diine góor ñi kese la jigéen ñi bokk ci diine Sénégal ah jigéen ñi bokkuñ ci góor ñi rek waaw yéen jigéen ñi dem leen ci ginnaaw yéen jigéen ñi àndatu leen ne leen yéen jigéen ñi puus leen yéen jigéen ñi bokk leen ci yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi da ngay dégg sax ñu ne jigéen du toog ci der waaw lan la jigéen di jëlee njàng mu sori jigéen tuuti rek doy na boo ko jàngalee Fatiha fële rek naa si rek jàngal ko nu ñuy toggee jeex na. moo tax it lu ngeen am moo tax lan lañ am Sénégal ay sindax yu jigéen rek ay sindax waaw sindax day gis maire boo xam ne mënul dara dara dara ci diine dara dara mënul jàpp mënul sangu set dara mënu ko bu ñu waree wax astafurlaay saafurlaay lay wax saafurlaay saafurlaay luy saafurlaay ah xamal waaw saafurulaay xam nga ne maire boo xam ne toog naan saafurulaay moom dund na juróom-ñaar fukki at jëkkëram dee na tey jii mu war a ténj léegi nag jox nañ ko kurus xamul lu muy wax mu naan waaw lu may wax ñu ne ko waxal astaghfirullah mu naan saafurulaay saafurulaay ñaata yoon laa koy wax waaw ñu ne ko téeméer yoon saafurulaay waaw yenn saa yi nga ñëw jaale si mu ne oustaz ah man de dañu ne sama tànk yi dama koy tàllal rek waaw Sénégal ak a ñoo bëri diine façon diine yi ñor amul fenn ci àdduna waaw lu nekk nag am na lu ñu ci war a def te xam nga lu ci garaaw mooy da ngay gis ku ñeme yàlla koo xam ne xamul dara jàngul am fit ñëw di wax ne lii la ñuy def am fit ñëw naan lii la soo ko ne waaw lu tax lii la ah man loolu laa gis nit ñi di def kat loolu laa gis nit ñi di def waaw loolu lay wax man loolu laa gis nit ñi di def am fit léegi mu mu ñeme ñëw fekk koo xam ne da koo jàng depuis bu mu juddoo ba muy dee mi ngi jàng lii la yàlla wax lii la mën a ko loolu kenn ko fi defee ndax ñun xamuñu loolu ñun sunuy maam lii lañ xam waaw diine sunuy maam la diine du sunuy maam diine du maam de diine lu yàlla wax la ak yonent ku am sa maam yàlla waxu la fenn ci alxuraan toppal sa maam fan la ne topp leen seeni maam ana aaya bi wax leen ko ana ñu mokkal alxuraan fii am na fi ci ci jàkk ji ñu mokkal alxuraan indi leen ma aaye topp leen seen maam te sax man aaya bi ma jàng mooy ñu toppoon seeni maam ah ak seeni kilifa yu mag yi dañoo matt seeni baaraam du rëcc naan inna ataana saadatana wa kubraana fa adalluna sabil eh yàlla baal ñu de ñun day li musiba bi ñu def mooy sunuy mag ak sunuy sang sunuy kilifa lañ toppoon suñu kilifa yi daal ñuy réeral ñu waaye woon yonent bi topp leen man de loolu laa jàng kon nanu xam ne yàlla dañ ko war a topp te bàyyi caaxaan moo tax yàlla ne Maryam demal nga julli ji mbooloo ma ca mbooloo ma ca jàkka ja nga julli fa warka'i ma raaki'in demal nga julli ca ca gaa yi julli yàlla nee na zalika lii min anba'il ghaybi dafa mbokk ci mbiru kumpa kumpa yow Muhammad lii man yàlla ba ma koy wax fekke woo ko kumpa la xaybu la lan mooy xaybu xaybu mooy loo fekkewul ba muy am xaybu la ci yow ak loo xam ne dafa am te yow gisoo ko loolu mooy xaybu léegi nag xaybu yàlla dafa tere nit di ci wax wala nga koy wootewu ne xam naa ko yàlla rek nee na man maa xam kumpa laa yaalamul xayba man fi samawati wal ard illa allah yàlla nee na asamaan ak suuf ku xam kumpa nekku fi asamaan ak suuf ku xam kumpa nekku fi léegi na xoolal Sénégal am na fi ñoo xam ne seen promotion seen tekki ci wootewu kumpa la ba nit ñi gëm ne ñii xam nañ kumpa nit ñuy wax nit ñi di leen déglu am na fi benn jigéen boo xam ne mbëri bu ñuy bëree wala dañ koy woo ci télé yi ne ko kuy daan mu naan ku mel nii ku mel ne le gars yi du ñu bàyyi duñ ko bàyyi duñ ko bàyyi lu dul mu wax leen tur bi su daanee rek ñu ne gis nga kii kii xam na lépp ba ndaw si jëlee ci léegi comme da doon seet ah ah lay waate waaw loolu lay loolu loolu lay moo loolu lay naxee nit ñi xam nga boo nekkee naxaatekat fokk nga sol benn lenn ci lislaam nga sol mbubb mu weex wala nga sol mbaxane mu weex wala nga yor kurus wala nga kaalawu wala ngay wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke laa ilaha illallah laa wax su ko defee nga mën a tuur nit ñi lëndëm su ko defee ñu ne kii eh, kii du yéeféeran kii jullit la dégg nga li muy wax kii jullit la ah, da ngeen bàyyi li ngeen di wax xam nga yéen yéen da ngeen a tar quoi yéen da ngeen a ëppal yéen ku ngeen gis rek ne yéeféer la ndeysaan ay Sénégal moo neex yàlla moo mën a jaye dafa am benn waay bu tuddoon Musaylimatul Kazzab yàlla daal di yónni yonent bi mu ñëw ne man tamit yonent laa su alxuraan wàccee moom tamit mu indi alxuraanam inna ataynaaka al kawsar moom mu ne inna ataynaaka al jawahir alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil mu ne al fiilu mal fiil wa ma adraka mal fiil wal aadiyaat dabhan mu ne wa taahinaati natahan nekk xoolal dëkk bi daal di divisé wu am ñu dem topp toppi ko am ñu topp yonent yàlla Muhammad yàlla di ko jaay rek di ko jaay ba mujj gi bu séenee dara di ñëw mu ne lee gëléem la su fekkee dafa sori bu ñëwee mu nekk gëléem est-ce que est-ce que sunu waa ji bu séenee dara mu ne lële di ñëw fas la bu ànd ak nangam ak nangam bu ñëwee muy loolu xam nga fu mu mujj bu séenee fas di ñëw mu ne lële fas la bu ñëwee mu nekk mbaam ñu tuddee ko Musaylimatul Kazzab maanaam yàlla da lay jaay rek gis nga bisa ngi ñëw bëccëg a ngi ñëw yàlla dina ko yenu bu biir bu weex ah xool leen am na fi ay xalifa ay xalifa général yi doon wax Abdou Diouf du wàcc mukk ñun ñoo ko branché am sëriñ ñu ne ñun sunu maam moo ñu feeñu sunu maam benn sëriñ bi mu ne man wali man man sama maam moo ma feeñu sama maam mu ne Abdou Diouf mooy falu keneen ki ne man sama sëriñ moo ma feeñu keneen ki mu ne man maa ko branché yàlla yenu Abdou Diouf ba ci kaw nit ku rull ci suuf ñoom ñoom ñu daw am na wala amul woon mu nga gay bu kenn du ci wax yàlla moo xam kumpa kenn xamul kumpa yonent bi nee na su ma xamoon kuntu qul law kuntu a'lamul ghayba lastaksartu min as- min al khayri wa ma massani yasu su ma xamoon lu baax su ma xamoon suba luy xew kon jàmm rek laay am kan mooy xam kan moo xam ne suba boo génnee dañ lay agressé nga xëy dem nga xam loolu kan mooy xam suba boo yeewoo da ngay dee nga yeew man dinaa xam ne suba su ma yeewoo damay dee ma yeew damay nelaw rek su ma laaka bi ñëw ne ko yeewoo gu ma de yàlla daal ba ma yeewu waaw ngi tëdd ci kaw la di jógagu ma parce que boo jógee dee est ce que di nga jóg boo xëyee da ngay accident nga est ce que di nga xëy dem nga xëy toog sama kër waaye gis nga yàlla programme am kenn mënul fexe ba li mu programmé du am waaye kumpa gi mu nëbb kenn mënu koo xam su fekkoon ne yàlla programme am nit mun na ko baaree kon yonent yàlla Moussa du judd ci waxtu woowu ndax gisaanekat yi gisaanekat yi maanaam ñii gis ngeen ñi ngeen di gis yenn saa yi ñuy wax dara rek muy tombe muy am ñooñu ay seytaane moo leen di dee seytaane moo leen di dee parce que lépp lu am lépp lu war a am yàlla dogal na ko ba pare ñoom dañ daan dem démb fa yàlla di dogalee ñuy déglu xalima gi di bind diw day nekk sàngam diw day daan nangam diw day def nangam léegi nag comme dégg nañ ko ñu ñëw maanaam loolu du kumpa ki ko dégg moo ñëw wax la ko yow su ma xamee dara ma ñëw wax la ko yow nga nettali ko est-ce que yow da ngaa xam dara yow dañ laa nettali ñoom seytaane yi ñoo leen di nettali alquran moo ñu ko nettali suratul jinn wa annahu kaana rijalun min al insi yauzuuna bi rijalin ah min al jinni fa zaaduhum jinne yi ñoo ne wa anna kunna naq udu ñun jinne yi dañ daan dem ba kaw asamaan toog naq udu dañoo am ay place yoo xam dañuy njëkkante noo toog lan la ñuy def ci place yooyu li sami pour déglu waaye léegi nii fa man yastamil aana yajid lahu sihaban rasada gis nga ñoo jinne yi bi ñu gisee programme boobu ñoom sax dañoo waaru naan wa anna la nadri asharrun urida bi man fil ardi am arada bihim waaye lii moom programme bi yàlla indi changé ko complètement ku dem dootoo déglu lii jàmm la yàlla namm wala aw ay la namm ndeke jàmm la yàlla namm mooy pour programme yooyu nit ñi di wootewu naan xam naa suba luy xew nangam nag wala ndaw si lu mu ci jële 5000 la doon seete 5000 mu daal di koy yokk 10 000 par jour 40 personnes lay jël 10 000 mu- multiplié par 40 ah te xoolal soo yéexee fajar doo fa dem boo demee du la jël benn waay jullee na fii ci jàkka ji mu fekk ñuy waxtaane lu mel nii ci benn téere bu tudd kitaabu tawhid mu ne lii war ngeen ko wax ci kaw nit ñi dégg ko parce que man am naa benn waay boo xam ne Cees la jóge sama kër la fanaan ñetti fan pour gis soxna si ñetti yëpp 4 heures du matin lay dem day fekk ñu arrêté rang bi 40 personnes yi jël nañ leen ba pare
Sax sax chaque ñu 400 000.
jour 400 000 deux ans ñaata la ah deux ans ñaata la ah xaalis bu bëri
Deux ans.
loolu kay nekkatul xaalis ña at bi ah at at la at at lañu wax ñaari at fukki at nag boo dëkkee ci loolu nag ngay fen nit ñi rek ñu lay jox seen seen xaalis ngay fen waaw gu ñu ku ñëw ne ko waaw man damaa bëgg nga xoolal ma ndax man damaa bëgg a tukki affaire yi dafa dëgër te nag xam nga lu yàlla nattoo ñooñu mooy kooku lu mu la wax nga dem def ko bu la nee demal nga rey benn xar bu ñuul kukk boo koy rey bul wax bul wax turu yàlla bul jublu penk bul ko jubal penk boo demee def ko su la waxee sangool deret nga def ko bu la waxee lu mu la wax nga def ko nga def ko
ba pare ba pare dafa wax écran ñëpp a ko dégg nee nañ ngisaan maanaam ci- ci- ngisaan seetkat baaxul kiiru quoi.
mu ne gisaane baaxul waaw ba- léegi moom li muy def lan la non dafa wax araamul quoi.
ah mu ne gisaane araamul léegi ñu fi nekk ñëpp kenn weddu.
ah parce que ñun jànguñu yeneen bi nee na boo demee yeneen bi nee na boo demee ci gisaanikat bi ngay dem ni ci yoon bi yegg goo yaa ngi dem rek yegg goo ci waa ji de boo jullee 40 jours yàlla du la ko nangul yaa ngi dem soo demee ba yegg nag mu wax la dara nga gëm ko yow génn nga ci islam yonent bi loolu la wax ñu ne gisaane baax na waaw gisaane leen kon ba dee gisaane bokkul ci lislaam gis ngeen gisaane kat bu doon lislaam la ñuy àtte woo xam ngeen gisaane kat lan mooy àtteem jaasi ci baat dañuy dagg baatam yeneen bi ne la bu ngeen gisee gisaane kat rey leen rey ku ñu war a rey nag nga toog naan loolu dara nekku ci ah mais comme xalifa général yi dañuy gisaaneelu gis naa benn xalifa général bu dem ci télé bi ci benn émission bu tuddoon benn émission bu tuddoon sowti sowti sow ki ko doon animé mu ngi tudd Mati kali- kilifa googu bi ñu ko bi bi mu defee émission ba pare dañ ko gisaaneel ñu ne ko ndax yow di nga gisaane mu ne dara nekk ji gisaaneel leen ma ndaw si daal di koy gisaaneel yéen ñëpp xam ngeen ko mu ngi noonu donc Sénégal foofu la toll kilifa diine yi ñooy jiite mbon gi kon kay cumbur cumbur yu mel ni ñun dañuy def ndax koo fi ne eh, mu ne eh, dimbali ma gis naa diw def ko su araamoon du ko def moo tax diine kenn du ko jëlee ci ay nit diine yàlla ak yonent bi lu mu wax la parce que nit ñi ngay xool mën nga ci gis ku baax mën nga ci gis ku bon ki nga yaakaar mën na ci mën na yaakaar loolu tax boroom xam-xam yi naan isa zallal aalimu zallal awalim boroom xam-xam bu tarxiisee rek day yóbbaale ay nit boroom xam-xam bi am fukki jabar ak juróom taalibe bi lu ñuy wax borom xam-xam bi am fukki jabar taalibe bi lu muy wax ah taalibe bi day takk rek di dem boo ko ne araam na lu mu lay wax borom xam-xam bi dul woor saa yoo ngo weeru koor bu ñëw yaa ngi ko fekk muy añ taalibe bi ni ñu ne wuy ma am na benn waay bu jógee woon fi dem benn dëkk fii la waaj toog rek bi mu koy nettali nee na ma dem ci dëkk bi weeru koor ma ñëw sëriñ bi na ñëw mbaa wooru leen mu ne man ak sama mag ñu ne ko dañoo woor de mu ne fii kër gi kenn du fi woor su ngeen ñu gëmee ñun du ngeen woor ma ne sama mag raxasu añ ma ne ko man damay woor de wala loolu gis nga fii kenn du fi julli fi kenn du fi woor fi kenn du fi bis boo demee ci nit mu wax la dara yàlla sant la nga bàyyi loolu yàlla wax la bu la nee bul woor kay yow bu yeboo nga bàyyi nga bàyyi nga woor gi léegi bàyyi julli gi bàyyi lépp bu yeboo nga dem église bi changé sa tur nga tudd Michel wala Paul wala Albert bul tuddati mukk Abdallah wala Mohammed wala Ngañ wala Muudu bu ko tuddati de parce que génn nga ci lislaam murtat nga yow dañ la war a rey képp ku bàyyi benn ponk lislaam dañ la war a rey bu yeboo ngeen xam loolu ku fi topp caaxaankat yi waaw waaw yow fekke woon kan moo ko doon wax fii démb loolu gars yi wax nañ ko fii démb xam barki démb koor kooku dafa murtat wax jooju mu wax rek murtat na kooku dafa war a tuubaat dafa war a dem sanguwaat jàpp tudd baatu seede yi tuub delluwaat ci yàlla bi mu waxee wax ji rek la génn ci lislaam dafa murtat dafa am wax yoo xam ne xam nga lan moo ñu indi problème jànguñu nawaqidul islaam dafa am fi mu nekk nii ci ñun ku jàpp ba pare am loo def sa njàpp day yàqu wala day day baax ku jàpp ba pare saw lu ngeen xam ci njàpp boobu ah yàqu na ku jàpp ba pare dem àll ba nag ah njàpp bi baax na mën na julli xam nga la mooy sama problème man su ma laajee damay nekk nit ñi naan yéen amu leen gémmiñ xanaa yéen mënut wax ci kaw yéen di tontu njaax mi toj na wala tojul ku jàpp ba pare séeg sa soxna njaax mi toj na ku war ba pare lekk koor gi yàqu na ku war ba pare séeg sa soxna koor gi yàqu na ah gis ngeen noonu la amee ci aj añ màkk dama am loo ko defee aj gi yàqu na noonu la amee ci julli soo ko defee julli gi yàqu na noonu la amee ci njàpp soo ko defee njàpp mi yàqu na noonu la amee ci koor soo ko defee noonu la amee ci lislaam soo ko defee sa lislaam yàqu na ah waaw yàqu na sa lislaam yàqu na complètement yow pour nga nekk jullit da ngay tuubaat da ngay tuub nekkaat ku bees yàqu na te nag ñun yooyu rek la ñuy def nag dafa ne nag ñun dara def dañu àjjana maa fay jiitu mais dafa ne nitu diine fekkee loolu ni kooku nitu diine la yow weeru koor say taalibe ziyaar si la indi la suukaru koor nga leen ah mbaa wooru leen de ñu ne la ah kay nga ne laan kër gi kenn du fi woor ndax ñun liñ nekk wóolu nañ ko ñun ku nu gëm doo woor kenn ki raxasu añ kenn ki continué ci weeru koor loolu diine la ah am na ci koo xam ne daa julli ba pare dafa dem foofu nekkoon ouvrier dal ci benn kër waxtu julli jot mu julli rek mu pare ñu ne ko anal anal li nga julli anal anal anal sotti ji ko cabiti kenn du fi julli am na ci koo xam ne moom dafa julli fekk borom kër gi ko indi woon ñëw na moom mu julli bi mu jullee pare borom kër gi ñëw mu ne ko ah man de damaa julli mais nii laa jublu noonu mooy seen xibla nii la mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla xaw ma xibla gi fan la parce que ñun fii duñ julli ah waaw ñun fii duñ julli bisimilah. sa benn xarit ah. tantam dafa sëy waaw waaw waaw maire bi ne ko bu fi julli waaw ne ko fii bu ngeen julli loolu dafa bëri dafa bëri place yoo xam ne da nga ñëw ñu ne bu fi julli loolu baaxul julli day julli yéen sëñ bi kan moo ñu sant ñu julli du yonent bi sax sant ñu julli de yonent bi sant ñu ko yonent bi moomul julli kan moom moom julli yow léegi jóg julli nga ñu ne la bul julli bul woor ba pare léegi nag ñu ne la waaw léegi nag yow bul julli bul woor waaye jullit nga de dégg nga benn waaye mu ne man xam nga lu ma jaaxal mu ne ku dul julli du woor bu dee ñu ne nañ ko jullee bala ñu koy yóbbu nañ julli ba pare yóbbu ko te du julli te bu dee ñu jullee ko est-ce que loolu xel nangu na ko nan leen góorgóorlu jaamu yàlla bàyyi caaxaan mbokk yi nawaqidul islam waaw pour ñu leeral la leen fukki fukk la insha allah waaw nee na zalika loolu lii ñu leen wax min ambail xaybi dafa bokk ci xabaari kumpa maanaam lii yàlla doon ñu nettali léegi naan mariam mariam yaayam nu mu tudd ah hanna papaam nu mu tudd imran mariama xabaar yooyu ñu leen doon jox information démb ak tey naan leen mariama hanna mooy yaayam imran mooy papaam balaa papaam balaa moom muy juddu papaam dafa dafa gaañu yaayam ëmb ko bi yaay ji ëmbee daal di nësëral doom ji yàlla far mu daal di juddu nekk fekk yaay ji li mu bëggoon mooy na am xabaar yi yëpp ñu leen doon jox yàlla nee na min anbaa'il ghaybi dafa bokk ci kumpa yéen fekkewu leen ko man fekkewu ma ko yow Muhammad yow mii ñu koy nett fekkewoo ko waaye man yàlla maa la koy nettali tey loolu mooy min anbaa'il ghayb zalika lii min anbaa'i dafa bokk ci ay xabaar al ghaybi kumpa ndeysaan maa zukirtu min qissati maryam wa zakariya min axbaari al ghaybi lii ma la nettali ci histoire maryama histoire zakariya histoire hanna histoire imran lii lépp dafa bokk ci ay xabaaru kumpa la fekke woo ko woon yow yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nuuhiihi ilayka man yàlla maa la ko dee maa ko wax yu ci alquran maa yónni jibril jox ko alquran jibril ñëw daal la koy jox daal la koy jàngal waaye fekke woo ko woon yow yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba nga toog mën kaa waxtaanal julit yi mën kaa leeralal sahaaba yi fekke woo ko woon wan man yàlla maa la ko nettali mu ne ko wama kunta ladayhim nekkoo woon seen wet is yulquuna ahlaamuhum keroog ahlaamahum keroog ba ñuy sànni seeni xalima yi keroog ba ñuy sànni bant ya ca dex googu tudd dexu jordaani nahru urdun fekke woo ko woon yow muhammad alayhi salaatu wassalaam is yulquuna ahlaamahum ba ñuy sànni xalima yi alqawha sànni nañ xalima ya fii nahri urdun ci dex googu tugu dexu ordon wa huwa nahrun jaari dex la guy daw comme fleuve Sénégal dex ndox mi day daw di dem wa afaada hadihi l aaya mashruiyatul qari nee na aaya bi dafa gën a feddali ne lotori dagan na lotori ah ma leeralaat ko ndax sànq bi ma koy wax jàkk ji tolul woon nii dafa am lotori bu dagan am lotori bu xaraam ban lotori moo dagan ban loterie moo dagan ban loterie moo dagan ñu war a tànn kenn ñu indi benn billet màkk ñu ne kenn moo koy jël yéen ñi ñëpp kenn la léegi nu ñuy def kenn ku nekk day indi dara kenn ku nekk day indi dara su kooku suñu indee dara waaw foofu laa jëm foofu laa jëm maanaam kii bu ñu indoon léegi benn billet màkk ci jumaa ji ñu ne benn billet màkk bi de kenn lañ ko may ci yéen léegi comme benn la te yéen da ngeen a bëri nañ tànn kii dem léegi dañuy indi ku nekk day indi dara suñu indee dara ñu daal di koy tiiroo ñu woo benn xale ñu ne ko kaay jël fii dara su xale bi ñëwee ku mu jël montram wala mu jël sa jaaro wala mu jël sa kurus yow yaa gañe loolu loterie boobu moom moo ban loterie moo araam nag ah mooy yi ñuy teg xaalis bépp bépp mbir moo xam ne da ngay da ngay teg ma teg ku gañ a jël loolu daa araam da ngeen wax bi bépp mbir ci lislaam boo xam ne da ngay teg ma teg ku gañ a jël keneen ki perte araam na gis ngeen message yi ñu leen di envoyé ngeen di envoyé Sonatel 200 francs xaw ma ñu ne la boo envoyé message mën ngaa gagné oto boo envoyé message mën ngaa gagné télé boo envoyé message mën ngaa gagné kër ko envoyé message carte kan nga est-ce que xam ngeen loolu saa yoo envoyé message bi rek ñaata nga envoyé ci sa crédit 200 Sénégal gi yëpp bu ñu envoyé 200 ñaata la xaalis carte la da ngeen ci def attention jullit du carte jullit du carte ndax carte islam def ko araamal keroog bi yàlla bëggee subhanahu wa taala Zakaria yar Mariam ñépp di ko xëccoo lan lañ def yàlla ne leen dem leen ba dexu ordun ku nekk na dagg bant xalima xam ngeen am na garabu xalima am na xalima yi ngeen gis ñu bindee garab la ñax la day sax su saxee ba màgg ba dëgër dañ koy dagg weer ko bu ñu ko weeree ba mu wow day nekk xalima yàlla ne leen bu ngeen demee ngeen dagg ñax yooyu ku nekk na ci dagg benn xalima utal utal bosam xàmmekaay ba ñu xam kan moo moom bii ngeen sànni ko ci dex gi su ngeen ko sànnee bant yi day dëpp ku sa bant wëlbateeku njëkk a génn dex gi rek yow yaa yar Mariam ñoom ñëpp ñu dem ban demee ba yegg ci dex googu ñu dagg bant yi daal di koy sànni ñu jékki-jékki rek bosu Zakaria daal di wëlbateeku daal di daw bàyyi fa bant yi daal di génn ñu xam ne kon Zakaria moom mooy yar ba pare yàlla lim defaat mooy soxna Zakaria ak yaayu Mariam ñoo bokk ñoo bokk ndey ak bàyyi kon gis nga Isa ak Yahya lan lañ bokk ay doomi ay doomi ndey lañ moo tax yàlla boole leen yóbbu leen ci benn asamaan ci ay loolu laajoon naa ko démb benn asamaan ci juróom-ñaari asamaan yi yonte yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bi muy dem laylatul isra wal mi'raj nee na yéeg naa asamaanu sangam fekk naa fa isa ak yaxya ñaari doomu ndey yi ñoom ñoo fa nekk am na benn borom xam-xam nag moom ci borom xam-xam Sénégal yi nee na gis naa bàmmeelu isa ñu ne ko fan mu ne kaw asamaan laa ko gis yonte yàlla Muhammad de ba mu demee lay asamaan waxul gis naa bàmmeelu Isaa dafa ne fekk naa fa ñaari doomu ndey yi de loolu la waxoon waaye ñun nag allahu akbar waaw sëñ bi nee na Isaa dafa faatu ma nga ca asamaanu sangam moom gis na bàmmeelam loolu dafa wuuteeg li yonte yàlla Muhammad wax yonte yàlla Muhammad dane man ba may reñaan fekk naa asamaanu sangam ñaari doomu ndey Isa ak Yaxya walla leen fekk lii histoire bi yàlla di nettali yonent yàlla Muhammad daf ko ne lii yëpp nag xaybu la fekke woo ko woon wala Muhammad fekke na ko mu ne ko nuuhi ilayk man yàlla maa la koy nettali wa maa kunta nekkoo woon la dayhim seen wet is yulquuna ba ñuy sànni aqlaamahum seeni xalima nekkoo fa woon ayyuhum ana kan ci ñoom yakfulu mooy yar Mariam Mariam ba ñuy def loolu kenn ku ci nekk naan maa ko bëgg a yar maa ko bëgg a yar yow Muhammad fekke woo ko woon wa maa kunta nekkoo woon la dayhim seen wet is yaxtasimuuna ba ñuy xuloo ba yëf yi tar tàng ba yàlla di leen wax nañ def nii pour ñu xam kan mooy yar Mariam boo fekke woo ko woon wala yonent yàlla Muhammad fekke woon na ko mbokk yi nee na lii daf ñuy jàngal ne tegante bant wala lotori dagan na ci di sunu diine jamu qalam wa huwa ma yuktabu bihi wa ilqa'uha li ajli al-iqtira'i biha ala kafalati maryam nee na ay bant la yoo xam ne keroog bant yooyu mooy bant yi ñuy bindee xalima la yàlla subhaanahu wa taala moo leen ko daggaloo sànni leen ko ci géej gi pour lan pour ñu mun a xam ana kan ci ñoom mooy yar Mariam kon ñaari mbir yooyu dagan na ci lislaam mooy lan teg bant wala lotori teg bant wala lotori léeg-léeg ñuy séddale ay yére wala ñuy séddale ay dàll wala ñuy séddale dara ñu teg wala xaru xaru nagu nagu tam xarit bi ñu rey ko ba pare léeg-léeg ci jàkka yi di nga gis ñu teg ci ay numéro buñ ko reyee pare dañuy teg ci yàpp bi ay numéro ñu commencé numéro 1 diw la moo njëkk a cotisé mooy numéro un ñu woo ko mu jël saamam numéro 2 bi diw cotisé diw moom moo ci tegu mu ñëw jël numéro 2 bi ñu wax turam waaw loolu mooy teg bant wala ñuy séddale dara ñun ñu ñuy séddale dara ñu bañ buñ ko séddalee ba pare am ñu mer naan xoola biñ ma jox xoola kii biñ ma jox rek ñu ne eh ku nekk na indi dara suñu indee ku nekk li nga indi rek ñu teg fenn teg teg ñu woo benn xale ne ko tegal mu daal di teg mbir yi léegi nag ku nekk bu fekkee sa sa jaaro bi nga takkoon moom lañ teg ci benn nga ñëw ban nga moom boobu ñu teg sa jaaro bu dee sa montre nga fa teg buñ la wooyee nga ñëw ban ngay jël est-ce que da nga ñëw fekk sa montre fuñ ko teg war nga ne waaw man sa montre bi lañ ko teg de waaye waaye man bii laa gën a bëgg xel nanguwu ko nag bi mooy sa sens jëlal yóbbu kon loolu dagan na ci diine waaye nag bu fekkente ne carte la moom dafa xaraam moo tax làmb làmb bëre bëre wala football comme yi ñuy def ni ay coupe du monde ay coupe d'Europe coupe d'Afrique coupe coupe coupe coupe loolu dafa dagan wala dafa xaraam lu tax dafa xaraam dafa am carte parce que dañuy joxe engagement dëkk yi bu nekk day joxe xaalis suñu gañee dëkk bi gañee jël ko moo tax football bi dafa xaraam parce que dafa am carte gis ngeen te ñu tey yii ñu ngi koy def waaw yenn saa yi sax ngeen ngeen génn yéen di jubilé yaa ci mbedd yi parce que gagné ngeen fekk léegi lan ngeen di jubilé mooy yéen ngeen carte kon tey Sénégal bu demoon gagné Coupe d'Afrique ñëw fii ngeen nekk fi di yuuxu lan ngeen di yuuxu lu araam carte Sénégal daa carte woon gagné yéen ngeen kontaan moo tax def leen ndànk balaa ngeen kontaan def leen ndànk balaa ngeen di tàcc wala ngeen di bég def leen ndànk ci li ngeen di bég lan la dagan na wala daganul def leen ndànk de yenn saa yi sa mbër daan nga kontaan nekk ci mbedd mi rek di werante doo reer sax est-ce que lii nga kontaan dagan na wala daganul est-ce que lii nga nekk di yuuxu ba bàyyi waxtu yàlla bi julliwuloo waaw nga xëy suba au lieu nga liggéey doo liggéey nekk ci bureau bi rek di wax dem jënd journaux man bu bu bëre bi jeexee ba ñu ba ma romb fi ñuy jaay journaux yi damay tiit day mel ne bëre bi tey la day mel ne foofu ñuy jaayee journal bi foofu la làmb ji amee nga gis commentaire yi expert expert expert mbër yi ñëw waaw borom xam-xam yi savant yi non soo gisee mu daan ko non dama ne la def ko keneen ne non ñëpp ay technicien mbër lañ allahu akbar ak bëri ay entraîneur ku nekk di commenter nag ci lu ñàkk fayda lu amul bopp amul geen yow xamoo yow mbër mi da nga koo gis nii rek xamula xamul sa papa xamul sa yaay bu sa papa deewoon sax du jaale si xaalis bi ñu ko jox anam may na la ci pour pour boo demee julli xiyaam ba pare pour nga delluwaat kër ga naafilawaat wala nga ñëwaat ci jàkk ji guddi waaw après incha allah bu ñu bu ñu paree dars yi comme ñaar yooyu ñu boole kook kii boobu nga waxoon sànq nu mu tuddati xaw naa waxul islam ñu ñu ñu ñu boole ko quoi insha allah kon dafa am mbir yoo xam ne dañ ci bàyyi xel jullit booy kontaan ay kontaan ci lu neex yàlla ay kontaan ci lu neex yàlla gis ngeen yonent yàlla Muhammad bi mu juddoo dafa am benn yéeféer bu ci kontaan kontaan trop ba jaamam bu jigéen ñëwoon ne ko Amina am na doom ju góor tuddee nañ ko Muhammad mu kontaan ba ne ko goreel naa la gis ngeen ko ko altine bu jot yàlla dina ko génne biir safara teg ko ci bunt bi mu noppalu mbugal mi ndax kontaan bi mu kontaanoon ci lu baax loolu déggu leen li ma wax de est-ce que dégg ngeen li ma wax déggu leen ko ma ne yonent yàlla Muhammad bi mu juddoo ban bis la judd altine benn jaam dafa ñëw ne sangam Muhammad juddu na Amina mi ëmboon am na doom doom ju góor Abu Taalib tuddee na ko Muhammad waa ji kontaan ba goreel ndaw si ko wax ndaw si jaam la woon mu goreel ko ban bis la woon bisu gis ngeen waa jooju safara la ko yàlla dugal waaye altine bu nekk dina ko génne biir safara teg ko ci bunt bi mu jël air kenn du ko mbugal bisu altine boobu ndax kontaan gi mu kontaanoon ci lu baax loolu kon yow mi kontaan ci lu bon nag yow mi kontaan ci lu bon ci lu bon lu araam ci lu diine tere làmb dafa xaraam de dafa xaraam laa wax dafa araama seetaan araama dem araama araama nekk nekk mbër dafa xaraam ah waaye bëri araamul dégg la nu mu wax de bëri araamul nekk mbër moo araam ak seetaani mbër toog di seetaan làmb yi dafa xaraam ok ñu ñëw ci lan moo tax mu araam bëre kese kese kese araamul ñaari saxaaba dañoo bëggoon dem guerre ñaari xale ñu ñëw ñoom duñu leen ne yéen ñaari xale ngeen du ngeen dem ñu ne ma ñun ñun ay mag lañ ñoom duñu leen ne ba pare waaw léegi yéen ñaar ku mag kenn gi ne kii maa ko mën yéen duñu bëri leen kenn ñu bëri kenn kenn ba ci kenn ba ci ko ne kon dul ne gis nga waxoon naa la maa ko mën damaa gàtt rek waaye maa ko mën ñun ñaar mën na noo bëre loolu dara nekku ci duñu am benn bakkaar ñun ñaar ñi mën nañoo jóge daal di bëre sama daanee ma dem ñibbi wala daanee nga dem ñibbi wala mën naa ñëw léegi daa teg portable bi ma ne yow yéen ñaar bu ngeen bëree ku daaneel ma jox ko yéen ñaar ngeen bëree ku daan ma jox ko loolu dara nekk ci loolu dagan na waaye bu araam bi mooy bii futteeku ba ci dese silib ngemb jullit bu góor fan mooy awra ci moom ah jumbax ba ci um yéen ñii ñëpp seen mbër yi seen mbër yi kan moo fi am mbër ah cam kii moom ku dëggu la kii ku dëggu la kan ma am fi mbër ah ñee dañoo dëggu ñii ñëpp dañoo dëggu seen mbër yi est-ce que mën ngeen leen xool te du ngeen gis jumbax du ngeen gis seen pooj du ngeen gis seen biir ah xam nga bis boo jàkkaarloo mbër mi di ko xool yàlla rëbb na la sax xam ngeen loolu yonent bi nee na laana allahu nazira wal manzuru ilayhi yal na yàlla rëbb kii xool awra jàmbur ak ki ñuy xool awraam yow yàlla rëbb na la moom mbër mi yàlla rëbb na ko nga toog di xool awra mbër bi yàlla rëbb na la moom mi simmeeku ñuy xool awraam yàlla rëbb na ko moom ndax jullit du xool awra nit doo xool awra góor doo xool awra jigéen te jullit bu góor jumba xam ba ci ay óomam awra la mës ngeen gis mbër buy bëre te fii feeñul wax leen ma kan la ci mbër yi kooku mooy benn ñaareel mooy gis nga danger bi ci nekk yow tey yow yéen ñi toog fi nekk góor su ngeen gisoon ñaari jigéen di futteeku ngemb comme góor ñi ni ñu ngemboo nekk ci làmb ji di bëre xool ku nekk na ma wax li muy xool am na ñoo xam ne ndeysaan xam nga lu ñuy xool ween yi am ñoo xam ne xam nga lu ñuy xool la ilaha illallah léegi nag xoolal yow nga bàyyi say jigéen ñuy xool loolu say jigéen toog ci télé bi di xool waa ci yaram bi ci kaw ba ci suuf bu doon yow la ngay xool jigéen looy xalaat sa jigéen bi toog di xool mbir mi loolu lay xalaat ci moom li nga bëgg ci ku jigéen kii nga doon xool loolu la ci sa jigéen bi toog di bëgg benn meer dafa toog di xool mànga ba ci yàgg mu ne cey poojam yi kum ci kepp dégg naa benn am na benn waykat bu jigéen bu nekk ci rajo bi xaw ma télé bi dafa xool xaw ma kan ba ci yàgg rek daan ne man kii dënnam bi rek a ma neex suñ koy wax sax duñ ko tey ndax day fekk ne sori nañ gis nga après yow nga bàyyi leen nag léegi ñuy xool lool beneen bi mooy xool leen xool leen njabar gi nekk ci ci ci làmb njabar gi liggéeyante bi xërëmante gi xool leen xool leen bokkaale yàlla yi ci nekk sama sama sama facebook sama page page facebook dañ ma envoyé benn nag buñ doon rey ci combat Balla Gaye ak Tapha Tine nag bi biñ ko daaneel biñ koy daaneel buñ ko daaneel bi dañuy indi sàngara sol ko ci nopp yi sol ko ci gémmiñ bi di sotti nag bi sàngara raxas baat bi sàngara sëñ bi boo gisee ni ñuy def nag bi ci lu bon dama ko enregistré loolu moom dama ko denc pour ku koy weddi ma woon ko rey bu bon lañ rey nag bi bala ñu koy rey gis nga sengoor bi mbër mi di yor di def nii moom lañ ko ñàddee moom la ñu laxas ci baat bi tekk ba mu dëgër doog a rendi nag bi ba pare ñu indi sàngara buusu ko ci nopp yi daanaka dañoo naanal ñaari butéelu sàngara dañ ko sotti ci nag bi ban nag bi ne tat màndi ñu doog koo rendi loolu ban diine la te looloo gën a ndaw keroog ca làmb ja yéen ñi doon seetaan lan ngeen gis dégg naa ñoo dañoo jël ay alxuraan di ko joxe ci combat bi wala te kaamil yi dégg naa dañoo coqati ay feuilles yu ci manqué du ay kaamil kaamil la mais dañ cee dagg dara ba kaamil bi manqué ñu joxe ko noonu loolu est-ce que dagan na mbokk yi ci diine dagan na ay julli di def noonu alxuraan ah baalu naax kan lay baalu kan lay baalu waa léegi kan lay baalu ñun ñun ñi ñun ñoo ñoo ñoo moom alxuraan kan lay war a baalu seen mbubb yi ñuy sol mbubb yi ci biir ay aaya alxuraan lañ ci bind am na ci koo xamante ne fi muy taxaw di sotteeku ci ay aaya alxuraan lay dëgg ah jàpp commencé càmmoñ wala di jàpp commencé càmmoñ inverse jàpp bi ah ah ah waaw ngaay gémmiñ ga dugal ci kaamil dugal ci gàllaaj ndeysaan xoolal loolu lépp léegi ñu ne loolu lépp dagan na waaw bu ñu paree insha allah bu ñu paree dars ñu dugg ci question yooyu war nañu delloo suñu xel mais lan moo tax ñëpp fàq dem ci mooy xaalis bi loolu rek moo tax ñëpp fàq dem ci waaye yéen est-ce que da ngeen am ci xaalis bi yéen da ngeen am ci xaalis bi su ngeen amoon ci xaalis bu nga am bàkkaar waa ji kay bàyyi koo xaalisam ak bàkkaaram yow lu ci sa yoon xoolal sànq waxtu gi ci nekk ban heure la ñuy dem ban heure la ñuy jógee ci kër yi dem stade jaxasoo góor ak jigéen xale yi jigéen yëpp ëmb nañ ndax loolu bàyyi sa doom bu jigéen mu dem stade depuis huit heures ci suba ba minuit ñëw di yu toggalu la fóotul xamoo ci li diine la li ban diine la ah dañ delloo suñu xel yar suñu njaboot xam nañ ñii dañ ni nax rek xaalis boobu du yàgg yow mi ba nga am ci loo boo yuuxoon fi ba sa baat dee du yàgg doo ci am 1000 francs boo jënd ndox mu sedd loo ci am mooy bakkaar yàlla mere la ci ngay kontaan ci loo xamante ne dafa xaraam te gis ngeen kee ba mu kontaanee ci lu baax donte ne yéeféer la am na tiyaaba yow nag ngay kontaan ci lu bon kon lii mooy wan ne làmb lii dafa xaraam bu yeboo ngeen bàyyi ko bu yeboo ngeen bàyyi ko bu yeboo ngeen xam ne daganut jullit du ko seetaan ab jullit loola tax sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñu wa ma kunta nekkoo woon la dayhim seen wet is yaxtasimuun jamono ja ñuy werante di xuloo jamono ja ñuy kenn ku nekk ne man maay yar Mariam gis nga loolu moo tax ñu ne lotori dagan na ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na ko def iza kaana sallallahu alayhi wa sallam iza arada an yusa iza arada safar aqraa bayna nisaihi day teg bant diggante jigéen ñi yonent bu doon tukki jigéen ñëpp ne ku nekk ne damay dem damay dem damay dem danaan ku nekk indil salam wala ngay indi sa jaaro wala ngay indi sa caq wala ngay indi sa ceen wala ngay indi sa benn yére wala ngay indi benn mouchoir ñu teg ku nekk teg ñu woo benn xale ne ko jëlal ci benn ku mu jël sa bos rek yow yaay dem yonent bi dafa maandu woon dafa ragaloon yàlla yow bu doon yow fii la nga am ñeenti soxna nga ni da ngay tukki ku leen damay dem koo yóbbu ñeenteel bi nga yóbbu ndax da nga naan moom mooy xale bu ndaw bi nga bàyyi meer yi ak ñeneen ñi nga yóbbu xale bu ndaw bi waaye gis nga yonent bi moom dafa ragaloon yàlla dafa maandu woon ci diggante soxnaa bi noonu la nekkee moom yonent ba ba mu feebaree nekk ci sukuraat dañ ko doon tingoom ñii jàpp ci mbagg yi ñii jàpp ci mbagg yi fu mu ayee rek ñu ñëw sànni ko foofu mu fanaan foofu mu dem ba jàppoo bi metti niñ koy jàppoo par jour di ko di génn ci néeg yi di ko dugal ci néeg mu daal di woo jigéen ñëm ñëw mu ne leen sonn naa ci jàppoo bi ñu may jàppoo léegi xam nga nu ngeen di def da ngeen di seet kenn ku ngeen bëgg rek ku ngeen bëgg rek ci yéen ma nekk néegam rek ba yàlla def ma tane wala yàlla def lu xam seet leen nag ba ngeen d'accord soxna yi tamit nekk soxna yu baax ñu xool ñoom ñëpp ay mag lañ Aysa moo ci gën a nekk ku ndaw te yenn yi ku ndaw moo ko mën ñu ne ko bàyyi nañ ko néegu Aysa moo tax yonent bi bu muy faatu mu ngi faatoo néegu Aysa yonent bi suuluñu ko ci jàkka ji Sénégal loolu la ñuy xool ku dee sëriñ bu dee ñu suul ko ci jàkka ji yonent bi suuluñu ko woon ci jàkka ji de ci néegu Aysa lañ ko suul néeg ji dafa dendoon ak jàkka ji lan moo dugal yonent bi ci biir jàkka ji jàkka ji lañ doon yaatal biñ ko yaatalee ñu toj côté yépp armeel bi daal di duggaale ci biir waaye terewul gaa yi fexe nañ ba kuy julli du ci jublu moo tax fii ku dee rek ñu ne suul leen ko ci jàkk ji te jàkk ju ñu suul nit jàkka ji araam naa julli bépp jàkk boo dugg digg jàkka ji comme foofu ngeen toog ñu suul fa nit ki jàkka jooju daganu la julli bu fekkee fii lañ ko def ci kanam daganu la julli bu dee ci biti jumaa ji nag mën ngeen a julli ci biir jumaa ji yéen bu dee ci côté yi dara nekku ci mais ci biir jàkka bi jàkka jooju kenn du fi julli loolu ñaata la fi ci Sénégal du jeex du jeex du jeex léegi sax nit ñi ci seen biir kër yi lañ leen di suul seen biir kër yi waaw ma dee na ngeen ma suul sama kër moo kenn yóbbu armeel loolu musiba la nag ndax kenn dootu la ñaanal mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala mu ñuy jàngal fii mu nañu gaa yi jël nañu seeni xalima keroog yatt ko dagg ko sànni ko ca ndox ma yàlla daal di jël xalamu zakariya loolu dogal mu yar maryam bi kafalatiha mu yar maryam fa kafalaha zakariya mu daal di koy jël yar ko bi iznillahi taala ci ndogalu yàlla ci yàlla lu mu namm la nag yàlla moo ko namm wa qad taqaddama qawluhu taala fa kaffalaha zakariya bi hada qaamat alhujja ala ahli alkitab wa gayrihim bi annahu la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nee na fii la yàlla daanale layam wu leer ci ahlul kitaab muy nasaraan yi ak yahudi yàlla xamal leen ne man maay yàlla waruñoo jaamu kenn ku dul man yàlla xamal leen ne muhammad yonent yàlla la xoolal muhammad ñëw na ci jamono joo xam ne yahuud yi ak nasaraan yi seen téere passé na seen yonent nekkatu fi yonent bi ñëw di leen wax histoire yu amoon ci seeni jamono yonent histoire yoo xam ne ñoom bu ñu ubbee seen téere yi bu ñu ubbee évangile wala ñu ubbi bible ñu gis ko ñu bind ko ci kon loolu lu muy tekki ne dëgg-dëgg muhammad yonent la yàllaa ko yónni xoola mu ñëw di nettali histoire mariama di nettali jésus ni mu juddoo ah di nettali naka la jaar ba zakariya yar ko loolu ñoom ñu nettali leen ko mu leer naññ ñu xam ne alxuraan bi ni mu ko waxee nii la amee loolu lu muy tekki mbokk yi te muhammad jàngewu ko ci benn université dëgg-dëgg loolu lu muy tekki waaw yàllaa ko yónni moo tax mu ne ko zalika min anba'il ghayb lii dafa bokk ci mbir yoo xam ne kumpa la fekke woo ko woon waaye tey man maa la koy dee ba nga mun koo leeralal nit ñi kon aaya yi day wane ne yonent yàlla muhammad dëgg dëgg dëgg dëgg ak nubuwaam yàllaa ko saxal ci alquran ne yonent la yàlla moo ko yónni waa ne yàlla mooy moom la ñu war a jaamu muhammad alayhi salaatu wasalaam moo war a jàngale naka la ñu war a jaamu yàlla mu ne wa anna diinil xaq huwa al islaam diine dëgg mooy lislaam mbokk yi bu fekkee dëgg rek lañ bëgg kan ci ñun fii ci biir jumaa ji moo bëgg dëgg ah kon ñi yëkkatiwul seen loxo ñoom bëgguñu dëgg ah ñan ñoo bëgg dëgg ñenn ñi ne nii ñenn ñi ne nii kon ñi yëkkati ñoo bëgg dëgg ana ñu bëgg dëgg bi yàlla nee na islaam mooy dëgg islaam mooy dëgg lu dul islaam du dëgg da nga bëgg dëgg da ngaa bëgg a dund dëgg da ngaa bëgg a dee ci dëgg da ngaa bëgg a dekki ci dëgg yàlla nee na jàppal ci lislaam boo ko fi bàyyee nag topp ñall ñall yi wala topp léeboon lëppoon wala topp yaakaar naag foog naa wala jàpp yaakaar naa ne diw ma mën na loolu nga nekk ci loolu ba dee yaa indi sa bopp problème dëgg gi daal yàlla wax na la ko nee na moo ngi nii maa ko won Muhammad maa ko jàngal maa ko leeralal mu ñëw di leen ko leeralal bu fekkee dëgg doo ngeen bëgg anna al islaama huwa diinul xaq yàlla amul diine bu tudd na nasaraan yàlla amul diine mu tudd yahud léeg-léeg nga dégg benn jullit mu ne waaw yàlla kay am na ñetti diine diine joo xam ne nasaraan la diine yahud ak diine lislaam wala yenn saa yi nga dégg ku ne sunu mbokk chrétien yi wala sunu mbokk yahud yi xanaa yow sa mbokk lañ man de duñ samay mbokk yàlla ne nii ñii duñu mbokk nga ne ay mbokk lañ yàlla ñan la wax mooy sa mbokk innamal muminuuna ixwa yàlla ñooñu la wax ñooy sunu mbokk waaye ñeneen ku dul jullit doo sunu mbokk ndeysaan te li metti ci loolu tey mooy mbokk mi mooy dóor mbokkam fat noonam làq noonam dóor mbokkam tey looloo xew làq say noon farak say noon di dóor say mbokk xam ngeen américain yi lu ñu xewal ëffal jullit yi ñuy xeex comme xam nañ ñoom bu ñu ñëwee di rey jullit yi affaire bi day garaaw jullit yëpp dañuy mer léegi dañuy fexe bu jullit ñi di reyante xoola dëkk yi ma leen wax dëkk yi mën a ralim jullit yi ñooy reyante seen biir Afghanistan ñan ñoo fay reyante armée bi ak taliban yi ñoom ñëpp ay lan lañ Irak ñan ñoo fay reyante si ay ak sunnit yi ñoom ñëpp ay lan lañ ay jullit Syrie ñan ñoo fay reyante armée bi ak peuple bi Égypte armée bi mooy rey peuple bi ay jullit lañ gis nga américain yi toog fële nag naan ah léegi kay ñun saye jaratul ñuy dem comme ñu ngi reyeen seen biir Somalie jullit yi ñooy reyante yenn saa yi nga gis ndeysaan jàkk bu ñu teg bomb ah Nigéria non Nigéria ña fay reyante jullit yi ak chrétiens yi la waaw dafay reyante waaye jullit yi ak jullit yi man laa wax jullit ak jullit jullit ak jullit waruñoo reyante jullit ak jullit ay mbokk lañ même bu fekkee jullit bi daa baax jullit bi bon jullit bu bon bi moo gën yéeféer bi yéeféer bu baax bi jullit lu mu saay saay saay saay lu mu bon bon bon moo gën yéeféer xataa yéeféer bi su baaxee jullit bu bon bi moo ko gën pas-pas boobu lañ war a am waaye dañuy ñëw fexe ba ñuy ba ñuy reyante suñu biir waaw dañu ne dañuy ñëw ci tijaan yi ne yéen tijaan yi yéen a gën murit yi ñun ñun kay ñun ñoo leen gën moom ñu ñëw ci murit yi ne yéen a gën murit yéen a gën tijaan yi ñëw ci ñële ñële yéen a leen gën ñee ku nekk kuñ dem ne yéen a gën ñële yéen yéen a ko yor ñeen ñeen ñeen xamuñ dara munuñ dara te ñuy xuloo suñu biir nag waaw tijaan yi ne balaa murit yi dugg àjjana ñun dañuy dugg murit yi ne leen da ngeen dof sëñ Tuubaa mu yor caabi àjjana waaw ibaadu bi ne tëll fële nag ne yéen ñëpp nag jahannama ngeen jëm yéen parce que nekkuleen ci sunna ñëpp jahannama ngeen jëm nekkuleen ci sunna waaw gars yi ne fa di xeex seen biir ndeysaan bàyyi bàyyi lu ñu waroon def ñu jaxase leen nag ku nekk yor jaas yor yat waaw bu benn tubaab ñooy ne la ma may ma ndox mu sedd ma naan nga ne ko ndox xaar ma jënd la boisson su jullit bi ñooy ne la may ma ndox nga ne ko awma ndox bu doo ko sax may ndox mu tàng de waxuma nga jëm may ko ndox mu set dama naan fi ndox amu fi dama dafa daj bu tubaab bi ñëwee nee na may ma ndox mu tàng nga ne ko xaaral ma jëndal la boisson ndeysaan mbokk yi yonent bi nee na al muslim axul muslim murit ak tijaan luñ bokk tijaan ban yàlla la gëm du ngeen wax bi ci kaw asamaan wala bi nekk ci suuf si murid ban kan mooy seen yàlla ban we- ban weeroon la ñuy woor ban weer murid dañoo am koor weer weer tijaan dañoo am weer ban xibla ñun ñëpp bu ñuy jublu fu ñu léegi-léegi dina nodd fii suñu jublu ñun ñëpp fu ñuy jublu ana penk bi est-ce que dafa am ñeneen ñuy jublu fii dafa am beneen téere ñun bu ñuy jàng bu du alxuraan ñun ñu groupe yooyu yëpp waaw xoolal lu bokk nu mu bëree ba pare lii yëpp ñu bokk ko mais mënu ñoo ànd bu ne woon léegi yëg leen coono ngeen gën a ma ma nekk ci kanam de ma nekk ci kanam du ma dem kanam rek problème bi mooy yéeg rek nga dem waaye man maay nekk ci wetu ginnaaw chauffeur bi foofu foofu la ñuy toog oto bi dem buñ toogul oto bi du dem jaajëf ah ñu nekk fa di reyante kan mooy toog ci ginnaaw chauffeur bi oto bi du dem ba borom oto bi dem ñibbi ñëpp dem ñibbi eh ñun fu ñu jëm lan moo doon l'essentiel mooy ñëpp dem rek nan ñu koy nan yegg waaw waa ji toog ci ginnaaw chauffeur bi ak apparenté bi oto bi bi daw oto bi super bu jëm Dakar kan moo ne ci kanam apprenti bi fu mu nekk chauffeur bu yeggee sànni apprenti bi egg na wala egg wuy leen ma ah déedéet déedéet apprenti bi eggul de parce que ci ginnaaw la nekk eggul eggul ah tata bi kii jaay ticket yi fu mu nekk ci ginnaaw chauffeur fu mu nekk tata bi bu eggee Colobane kii jaay biir bi egg na wala eggul déedéet eggul de ci ginnaaw la nekk eggul waa ji day ñëw fii def demi tour jëliwaat ko tamit mbir mi mooy nan dem rek nan egg ci yàlla na yàlla kontaan ci ñun nañ dugg àjjana ñoo bokk lii lépp kon est-ce que jar na xuloo est-ce que jar na xeex démb damay déglu rajo tës waaye ñu ngi leen benn image boo nekk du ko indi naam fahimtu lakin laa bëdd an natamahal in intazi aqaali laa bëdd an nubayinahu linnaas نبينه بماذا بالموعظة حسن واقترابهم وإرشادهم وتعويتهم أليس كذلك ليسنا نحن نقف هنالك ونوبخهم لا بد أن نقتربهم ونواعظهم ونرشدهم ها؟ هذا هو الدعوة هذا ما أمرنا ربنا ادعو إلى السبيل ربك بالحكمة لكن ليس بالإجبار ولا بالتوبيخ ولا بالشتم هذا الأشياء لا بد أن يكون واضحا عندنا هذه العقائد لا بد نحن الذي نعرف العقيدة الصحيحة لا بد أن نعلمهم هؤلاء إذا كنا نحن سكرنا ولا نعلمهم ولا نرشدهم كيف يكون؟ non misaal laa lay wax laa lay jox waa ji ba muy wax démb dafa leer dafa ne ibaadu bi dafa nekk jàkk ji sonal nu mën na nekk dëgg allahu alam mais waaw ci ci defeen yi la ci defeen yi non mën na nekk sax waa ji deful sax lu bon mën na def sax lu baax mais ñoom seen gisin ne waa ji lu bon la def mais loolu lépp lu ci mën a nekk mooy yow bu fekkee da ngaa yor lu leer mbir mi dafa leer ci yow lan moo la war mooy nga jege ñi nga xam ne xamuñu nga leen di jàngal ndànk-ndànk yonent bi noonu la waxoon loolu la doon def moo tax bi mu doon yónni saxaaba yi lan la wax yassiru wala tuassiru lan la leen doon wax innama buistum muyassirin yàlla da leen a yónni pour ngeen yombal nit ñi ngeen leeralal ko nit ñi waa ji bu fekkee dafa gëm ne moom du julli du woor te dee dugg àjjana yow mbir mi leer na ci yow bul bul ko sori de nga ko war a jege fexe ba mu xam yow li nga xam nga fexe ba muy julli nga fexe ba ba muy woor fexe kuy jéem nag doo wax benn yoon rek noppi sébb bu tax a tàkk nan la ñuy def ba mu boy boo doon boo doon ataaya këriñ gi tooy nga dugal ñax tàkkul nga dugal këyit tàkkul da ngay bàyyi ataaya ci ngay def lu ne ngay uti dana la jaara sax nga dem jëndi pétrole taal almet ba mu jeex yow l'essentiel que loo bëgg safara kon noonu lan war a def jege jullit yi di leen jàngal diine ci di leen ko leeral ñeme leen bañ leen a siixlu fekki leen boroom xam-xam yi jàngale daawa dañu ne boo fekkee ku daanu ci foos nga bëgg ko sëbe te bañ a tax ndax waa ji dina génn waa jaa ngi ci biir foos bi nga bëgg mu génn te yow sa loxo du tax nga naan ko jógal jógal génn jógal jógal te doo ko jox loxo mais foog nga jox ko loxo minimum sa loxo bi tax nga bàyyi ko mu génn bu génnee nag nga sotti ko ndox mu set yow tamit nga raxas yi ba mu xam ne fi mu nekkoon baaxul lool ngeen di nangoo def yërëm xeet wi ubbil leen yërmande jàngal leen lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan jàngal xeet wi am na ñoo xamante ne bu mbir mi leeree rek ñu jël démb am na ñu fi ñëw laaj ma da yonent bu doon julli nan lay def man leen day xabdu heure bi la ko waaji laaj la ko ñenn ñi laaj gis naa ci koo xamante ne daawul xabdu waaye gis naa bi ñuy julli tàkkusaan muy julli ñaar raak bi mu jàpp jéema ñëw dafa xabdu parce que leer na mbir mi leeralal nañ ko ko daawul ko def mais leer na kon nañ leen def noonu nañ leen leeralal nit ñi diine ci ñu yërëm leen ubbil leen bunt yi jege leen pour diine gi leer ñëpp ñëw àjjana ji ñun ñëpp ñoo ko bokk de te du ndam nag du ndam nag yow nga dugg sa mbokk yëpp dem safara man njëriñ la am yow kese nga dugg àjjana ñëpp ñu dugg safara ban njëriñ la ñun ñëpp ñoo war a dugg àjjana kan moo bëgg dugg àjjana fii yow kenn nga dugg ban njëriñ la am te àjjana du fees du fees kon na fexe ñëpp dugg rek wala yal na yàlla dugal ñun ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.